jëf ya jëf wàll ci lindiil di jëfi ndaw yi kirist yónni yow tewofiil téere bu jëkk bi ma bindoon ëmb na lépp lu yeesu tàmbali woon jëf ak a jàngale ba ca bés ba ko yàlla yéege ci asamaan lu ko jiitu joxoon na ay ndigal jaare ci xel mu sell mi jëm ci ndaw yamu tànnoon gannaaw ay coonoom ñëw na ci ñoom di leen woon ay firnde yu bari te wér ne mu ngi dund mu feeñu leen diirub ñeent fukki fan di diisoo ak ñoom ci lu jëm ci nguuru yàlla am bés muy lekk ak ñoom mu sant leen ne bu leen sori Yerusalem waaye ngeen xaar li baay bi dige woon te ma waxoon leen ko ndaxte Yaxya daana sóob nit ñi ci ndox waaye yéen des na leen sóob ci xel mu sell mi fii ak ay fan yu néew bi nu dajaloo ak moom nag ñu laaj ko borom bi ndaxte jamono ji nga yëkkatiwaat nguuru Israyel mu tontu leen ngeen xam jamono yi ak saa yi baay bi dogal ci sañsañam loolu mayuñu leen ko waaye bu xel mu sell mi ñëwee ci yéen dingeen jot kàttan te nekk samay seede ci dëkku Yerusalem ci diiwaanu Yude ak Samari yépp ak ba fa àddina yem bi mu waxee loolu te ñu di ko xool yàlla yéege na ko te aw niir jël ko làq ko seeni bët bi muy dem nag te ñu ne jàkk asamaan ñaar ñu sol yu weex daldi ne séef taxaw ci seen wet ñu ne leen yéen waa galile lu tax ngeen taxaw di xool ci asamaan yeesu ma ñu jële ci seen biir yéege ko asamaan dina dellusi ci ngeen ko gise muy dem asamaan ñu jóge ca tund woowu ñuy wax tund olivier te mu dànd ak yerusalem lu tolloo ak kilomètre ñu daldi dellu yerusalem bi ñu dikkee ñu yéeg ca néeg ba sut ca taax ma fa ñuy dal ñoo doon piyeer yowaana saak ak andre filip ak toma bertilimi ak macce saak doomu alfe ak simon mi bokkoon ci mbooloo mi ñuy wax ñi farlu ci moom seen réew ak yu daadoomu saak ñoom ñépp ñoo bokk menn xel di wéy ci ñaan ci yàlla ànd ak jigéen ñi ak maryaama ndeyu yéesu ak rakki yéesu yu góor ca bis ya nag piyeer taxaw ca diggu mbokk ya di mbooloo mu tollu ni téeméer ak ñaar fukk mu ne leen mbokk yi li xel mu sell mi waxoon ci mbind mi jaarale ko ci gémmiñu daawuda faaw mu am waxoon na ci mbirum yudaa mi womat ñi jàpp yéesu te mu bokkoon ci nun ba am cër ci liggéey bi pey gi yudaa jotoon ci ñaawteefam mu jënd ci tool daanu fa ba fàcc ay butitam tuuru loolu siiwoon na ci waa yerusalem moo tax ci seen lakk ñuy tudde tool ba akeldema maanaam toolu deret piyeer teg ce ne ndaxte lii lañu bind ci téereb saboor na këram gàntal bu fa kenn dëkk te it na keneen bey sasam kon ñeel nanu nu tànn kenn ci ñu bokk ak nun diir bi Yeesu doon dem ak a dikk ci sunu biir li dale ci bi ko Yaxya soobe ci ndox ba bés ba ko yàlla jële ci sunu biir yéege ko kooku war naa ànd ak nun di seedeel ndekkiteel yeesu bi ko piyeer waxe ñu tudd ñaar yusufa mi ñu dippe barseba te di ko dakkantele yustus moom ak matiyaas ñu ñaan ci yàlla ne borom bi yow mi xam xolu nit ñépp wonnu ki nga tànn ci ñaar ñii mu yenu liggéey yu nekk sa ndaw wuutu yuda mi ko bàyyi dem berebam noonu ñu boole leen tegoo ay bant bant ba dal ca Matiyaas mu fekki fukki ndaw ya ak benn jëf ya saar ñaar bi bésu màggalu Pantekot agsee ñoom ñépp booloo nañu ci benn berab ca saasa riir jollee asamaan mel ni ngelaw lu gaaw te bari doole daldi fees dell kër gañu toog te ay làmmiñ yu mel ni safara feeñu leen ñu tasaaroo ci seen biir tong ca kaw kenn ku nekk noonu ñu fees ak xel mu sell mi ñoom ñépp ñu daldi wax yeneen làkk ni leen xel mu sell mi maye ñu wax ko fekk boobu amoon na ay yawut yu daloon Yerusalem doon ay nit yu ragal yàlla te bokk ci xeeti àddina yépp bi ni ñi déggee riir ma nag ñépp dajaloo daldi waaru ci li ñu leen dégg ñuy wax ku nekk sa làkk ñu waaru te yéemu naan gis leen ñiy wax ñépp ndax duñu waa diwaanu galile naka la mën a ame nag ñu di leen dégg kenn ku nekk ci nun ñuy wax ci sa làmmiñ wi nga nàmp nun ñi ay part waa medi ak waa elaam ñun ñi dëkk mesopotami réewu yawut yi kapados pont ak asi di waa firisi pamfili misere ak weti libi yi dend ak sireen nun ak gan ñi jóge rom yawut yi ak ñi tuub ci yoonu yawut yi waa kret ak arab yi nun ñépp ñu ngi leen di dégg ñuy yégle màggaay yàlla ci sunuy làkk noonu ñépp waaru ba jaaxle lool ñuy waxante ci seen biir ne lii lu muy tekki waaye ñenn ñi di leen ñaawal ne waay ñii dañoo màndi ak biiñ ci kaw loolu piyeer taxaw ànd ak fukki ndaw ya ak benn mu wax ci kaw di yëgal mbooloo ma ne mbokk yawut yi ak yéen ñépp ñi dëkk yerusalem déglu leen bu baax te xam lii ma leen di wax nit ñi màndiwuñu ci ni ngeen ko fooge te ñu ngi ci yoor yoor rekk waaye lii mooy li yàlla waxoon jaarale ko ci yonentam yowel ne yàlla nee na ci bis yu mujj yi dinaa tuur ci sama xel ci kaw nit ñépp seen xeet wu góor ak wu jigéen dinañu wax ci kàddu yàlla waxambaane yi dinañu gis ay peeñu te màgget yi di gént ay gént waaw ci bis yooyu dinaa tuur ci sama xel ci sama kaw jaam yu góor ak yu jigéen te dina ñu wax ci kàddu yàlla dinaa wone ay kéemaan ci kaw ci asamaan ak ay firnde ci suuf ci àddina muy deret safara ak ay niiri saxaar jant bi dina daldi lëndëm weer wi deretal balaa bisu boroom bii ñëw di bés bu màgg bi ànd ak ndam booba nag ku woo boroom bi ci aw turam dinga mucc yéen mbokki Israyel déglu leen wax ji yéesu mi dëkk nasaret nit la woon ku yàlla dëggal ci seen kanam ci kéemaan ay jaloore ak firnde ya yàlla defoon jaarale ko ci moom ci seen biir yéen xam ngeen ko moom nag jébbale nanu ko jaar ci nas bi yàlla dogaloon te xam ko lu jiitu te yéen rey ngeen ko ci daaj ko ci bant jaarale ko ci loxooy bàkkaarkat waaye yàlla dekkal na ko daggal ko buumi dee ndaxte dee mënu koo téye daawuda wax na ci mbiram ne saa su ne gis naa borom bi ci sama kanam gannaaw mu ngi ci sama ndejoor kon duma raf moo tax sama xol sedd may woy sama bànneex te it sama yaram di tëdd ci yaakaar ndaxte doo bàyyi sama ruu ci barsàq te doo seetaan sa waaju sel mu yàqu xamal nga ma yoonu dund dinga ma bégloo ji ci sa kanam mbokk yi mën naa leen wax lu wóor ci mbirum maam daawuda ne dee na te suul nañu ko bàmmeelam mu ngi ci nun ba tey waaye yonent la woon te xamoon na ni yàlla digoon na ko ci ngiñ ne dina teg ci nguuram kenn ci askanam kon gis na lu ñëwagul di wax ci mbirum ndekkiteel kirist ne bàyyiwuñu ko ci barsàq te yaramam yàquwul yéesu moomu nag yàlla dekkal na ko nun ñépp seede nañu ko yàlla yéega na ko ak ndejooram te jot na ci baay bi xel mu sell mi mu dige woon ba tuur lii ngeen gis te dégg ko ndaxte du daawudaa yéeg ci asamaan waaye moom ci boppam nee na boroom bi wax na sama boroom toogal ci sama ndejoor ba kera may daaneel say noon ci sa kanam na bani israyil gépp xam bu wóor nag ne yéesu moomu ngeen daajoon ci bant yàlla def na ko boroom ak almasi bi bi ko mbooloo ma déggee naqaru xol wu metti jàpp leen ñu daldi ne piyeer ak ndaw ya ca des mbokk yi lu ñu war a def piyeer tontu leen ne tuub leen seeni bàkkaar te kenn ku nekk ci yeen ñu soob ko ci ndox ci turu yéesu Kirist noonu yàlla dina leen baal seeni bàkkaar te may leen xel mu sell mi ndaxte li yàlla dige woon yéena ko moom ak seeni doom ak ñi sori ñépp di ñépp ñi yàlla sunu boroom di woo ci moom noonu mu artu leen ak yeneen wax yu bari di leen dénk ne rëcci leen ci niti jamono ju dëng ji ñi nangu ay waxam nag ñu sóob leen ci ndox te ci bés booba lu mat limum ñetti yi nit yokk nañu ci ñoom ñoom nag ñuy wéy ci njàngaleem ndaw yi ak ci bokk ci damm mburu ak ñaan ci yàlla ragal jàpp ñépp te ndaw yi di def ay kéemaan ak ay firnde yu bari ñi gëm nag dañoo booloo te bokk lépp ñu jaay seen suuf ak seen alal séddoo ko ku nekk ak la ngay soxla te bés bu nekk ñu saxoo teew ak benn xalaat ci kër yàlla ga tey damm mburu ca kër ya ñuy lekk seen ñam ak xol bu laab tey bég di màggal yàlla te am yiw ci wetu nit ñépp noonu bis bu nekk borom bi di yokk ca mbooloo ma ñi mucc jëf ya ñett am bis ak yowaana dem ba bëgg a dugg ca kër yàlla ga ca waxtu ñaan maanaam tisbaar fekk ñu indi fa nit ku judduwaale lafañ ñu di ko teg bés bu nekk ca bunt ba ñuy wooye bunt bu rafet ba ca kër yàlla ga ngir mu yalwaan ña fay dugg bi mu gisee piyeer ak yowaana nag ñuy dugg ca kër yàlla ga mu dékk leen loxo ci kaw loolu piyeer ak yowaana ne ko jàkk te piyeer ne ko xool nu lafañ bi xool leen yaakaar na dina jot dara ci ñoom noonu piyeer ne ko awma xaalis awma wurus waaye li ma am dinaa la ko jox ci turu yeesu kirist mu nasaret doxal mu jàpp ci loxol ndijooram yëkkati ko ca saasa ay tànkam ak ay kostanam dëgër mu tëb daldi taxaw di dox mu dugg ak ñoom ca kër yàlla ga muy dox di tëb tey sant yàlla noonu ñépp gis ko muy dox di sant yàlla te ñu xàmmi ko ne moo daan toog di yalwaan ci bunt bu rafet ba ca kër yàlla ga ñu daldi waaru lool te yéemu ci li ko dikkal naka waa ji taq ci piyeer ak yowaana ñépp waaru ñu daldi daw fekk si leen ca barab ba ñuy wax werandaa bu suleymaan bi piyeer gisee loolu nag mu ne mbooloo mi yéen waa Israël lu tax ngeen waaru ci lii lu tax ngeen di ñu xool jàkk mel ni ci suñu kàttan mbaa ci suñu ragal yàlla lañu doxloo kii yàllaay Ibrahima ak Isaaxa ak Yanqoba di yàllaay sunuy maam màggal na ndawam yéesu yéen xëccook moom ba jébbal ko Pilaat fekk naroon na ko bàyyi yéen xeeb ngeen aji sell ji te jub te tinul ab reykat boom ngeen aji dundal ji waaye yàlla dekkal na ko seede nanu ko nun ñépp ci gëm turam la nit kii ngeen di gis te xam ko dëgëre waaw turu yéesu ak ngëm gi jóge ci moom moo tax mu wér pen ci seen kanam yéen ñépp léegi nag mbokk yi xam naa ni ñàkk xam a tax ngeen def ko yéen ak seeni kilifa waaye noonu la yàlla amale li mu yégle woon lu jiitu jaarale ko ci gémmiñu yonent yépp naan almaseem dina sonn tuub seeni bàkkaar nag te waññeeku ci yàlla ngir seeni bàkkaar far noonu jamonoy peex dina bawoo ci borom bi te muy yebal almasi bi mu leen jagleel maanaam yeesu asamaan war na ko yor ba jamono ji ñuy defaraat lépp di jamono ji yàlla waxoon jaarale ko ci gémmiñug yonentam yu sell yépp li dale ci njaalbeenug àddina ndaxte musaa newoon na borom bi seen yàlla dina leen feeñalal ci seen xeet yonent ni man nangeen ko déggal ci lépp lu mu leen wax képp ku déggalul yonent boobu des na la far ci xeet wi li dale sax ci Samuel ak ñu ci topp bépp yonent bu wax yégle na bés yi yéen yen yéenay donn yonent yi ak kóllëre gi yàlla fasoon ak seeni maam bi mu naan Ibrahima xeeti àddina yépp dinañu barkeelu ci kiy soqi ci yow yàlla feeñal na ndawam jëkk koo yebal ci yéen ngir barkeel leen ci woññi leen kenn ku nekk ci say bàkkaar jëf ya sar bi ñuy wax ak mbooloo ma saraxalekat ya ak kilifay ñiy wattu kër yàlla ga ak sadusiyen ya daanu ci seen kaw ñu mer lool ci li ñu waar nit ñi di yégle ndekkiteel ñi dee sukkandikoo ko ci ndekkiteel yeesu noonu ñu jàpp leen tëj leen ba ca ëllëg sa ndaxte mu nga doon tàmbalee guddi waaye ñu bari ca ña dégg wax ja gëm nañu te li mu góor ñi gëm yokk na ba mat juróomi junni ci ëllëg sa nag kilifa yawut ak njiit yi ak xutbakat yi dajaloo ci Yerusalem ràññee nañu ci anaas mi saraxalekat bu mag bi kayif yowaana aleksandar ak bokki saraxalekat bu mag bi ñu dëj piyeer ak yowaana ca digg ba laaj leen ne li ngeen def ci gankàttan kàttan mbaa ci turu kan ngeen ko defe ci kaw loolu piyeer daldi fees ak xel mu sell mi ne leen yéen kilifay xeet wi ak njiit yi bu fekkee ne xettali nit ku wopp ba mu wér moo tax ngeen dëj ñu ci pénc mi tey nangeen xam lii yéen ñépp ak bànni Israyil gépp ci tëru Yeesu Kirist mu Nasaret mi ngeen daajoon ca bant ba te yàlla dekkal ko ci tur woowu la nit kii jële ak wér ba taxaw ci seen kanam Yeesu moomu mooy doj wi ngeen xeeboon yéen tabaxkat yi te moo doon doju koñ te mucc amul ci keneen ndaxte ci ron asamaan amul weneen tuur ñu maye ci nit ñi wu nu war a mucce kon bi ñu gisee fit wi piyeer ak yowaana àndal te ñu xam ne mësuñoo jàng mbaa ñuy gëstu ci diine ñu daldi waaru ràññee ne daanañu ànd ak yéesu te bi ñu gisee nit kañu fajoon taxaw ak ñoom mënuñu caa teg dara noonu ñu santaane ñu génne leen ñu daldi gise ci seen biir ne lu ñuy def ak nii ndaxte def nañu kéemaan gu siiw loolu leer na ñi dëkk Yerusalem ñépp te mënuñoo ko weddi waaye ngir mbir mi bañ a law ci xeet wi nanu leen aaye ñu bañ a waxati ak kenn ci tur woowu noonu ñu woo leen ñu tere leen bu wóor ñu waxati mbaa waare dara ci turu yeesu waaye piyeer ak yowaan tontu leen ne bu fekkee ne déggal leen te bàyyi yàlla moo jub ci kanamu yàlla seet leen ko waaye nun mënunoo bañ a wax li ñu gis te dégg ko noonu kilifa yi tëkkuwaat leen yiwi leen ñu dem ndaxte amuñu benn bunt ci ñoom ngir mbugal leen fekk ñépp di màggal yàlla ci li xewoon ndaxte nit kañu fajoon ci kemaan googu weesoon na ñeent fukki at bi ñu leen yiwee nag ñu dem ca seeni mbokk nettali leen la saraxalekat yu mag yi ak njiit ya waxoon lépp bi ko mbokk ya déggee nag ñu mànkoo di seen kàddu yàlla ne borom bi yaa sàkk asamaan suuf géej ak lépp li nekk ci seen biir yaa wax jaar ci sunu maam daawuda sa jaam mi doon gémmiñu xel mu selli mi ne lu tax xeeti àddina di baax lu tax ñuy fexe lu mënula am buuri àddina dañoo booloo te kilifa yi dajaloo di bañ boroom bi ak almaseem ndaxte ci dëgg ci dëkk bi erod ak pons pilaat ànd ak xeeti àddina ak bani israyel likoo nañu ngir daaneel sa ndaw lu sell li nga fal di yéesu te def lépp li sa kàttan ak sa ndigal tëraloon léegi nag borom bi seetal seeni tëkku te may say jaam ñuy wax sa kàddu ak fit talalal sa loxo ci wéral ak ci wone ay kéemaan ak ay firnde jaarale ko ci turu yéesu sa ndaw lu sell li bi ñu ñaanee ba noppi barab ba ñu booloo woon daldi yëngutu te ñoom ñépp fees ak xel mu selli mi ñuy wax kàddu yàlla ak fit wu dëgër noonu mbooloom ñi gëm ñi bokk menn xel ak benn xalaat kenn daawul akimoo dara ci alalam waaye ñoo bokkoon lépp te ndaw yi di seedeel ndekkiteel yéesu borom bi ak kàttan gu réy te yiw wu yaatu ëmb leen ñoom ñépp kenn ci ñoom ñàkkul dara ndaxte képp ku nekk boroom suuf mbaa am ay kër jaay na ko indi njëg gi teg ko ci loxooy ndaw ya ñu di ci sedd kenn ku nekk li mu soxla noonu amoon na fa ku tudd yuusufa te ndaw yi dàkkantele ko barnabaas mi tekki kiy dëgëral fit yi mu soqi ko ci giiru lewi te juddoo dunu sipar moom nag jaay na tool ba mu moom indi xaalis ba teg ko ci loxooy ndaw ya jëf juróom naka noonu nit ku tudd ananiyaas ànd ak safiira jabaram jaay làccu suuf mu dencal boppam benn cër ca njëg ga ànd ca ak jabaram ba noppi mu indi cër ba ca des teg ko ci loxooy ndaw ya bi mu ko defee piyeer ne ko ananiyaas lu tax nga bàyyi seytaane dugg la ba fees sa xol ngay wor xel mu sell mi ci li nga dencal sa bopp benn cër ci njëg gi bi mu jaragul ndax moomuloo ko woon te bi mu jaree ndax yilifuloo woon njëg gi lu tax nga fas ci sa xol def nii waruloo nit ñi waaye yàlla nga wor bi ananiyaas déggee baat yooyu mu daanu dee ñi ko dégg ñépp tiit ba ni nërëm noonu waxambaane ya jóg ñu sang ko yóbbu ko jébbal ko yàlla ñetti waxtu gannaaw ga jabaram dugg si fekk xamul la fa xew piyeer daldi ko ne wax ma ndax lii mooy njëgu tool bi mu tontu ko waaw lii la ci kaw loolu piyeer ne ko lu tax ngeen ànd di diingat xelu borom bi ñi denc woon sa jëkkër ñu ngi nii ci bunt bi te dinañu la yóbbu ca saasa mu daanu ci tànkam dee bi waxambaane yi agsee nag ñu fekk ko mu faatu ñu yóbbu ko def ko ci wetu jëkkëram noonu tiitaange ju mag tàbbi ci mbooloom ñi gëm ñépp ak ñi ko dégg ñépp bi loolu amee ay kéemaan ak ay firnde yu bari di xew ci nit ñi jaare ci loxooy ndaw ya ñépp di booloo ca weloon raabu suleymaan ca kër yàlla ga te kenn cee ña ca des ñimiwula booloo ak ñoom waaye nit ñépp di leen màggal moona ay nit ñu gën a bari góor ak jigéen di gëm borom bi tey taq ci ñoom nit ñi indi sax ñi bopp ca mbedd ya teg leen ci ay lal yu ndaw ak ay leeso ngir bu piyeer di jaar doonte takk ndeeram sax yiir ñenn ci ñoom te it nit ñu bari dajaloo jóge ca dëkk ya wër Yerusalem ñu indi ay jarak ak ñu rab yu bon sadd te ñoom ñépp daldi wér booba saraxalekat bu mag ba jóg ak gàngooram gépp maanaam kuréelu saducéen gafa dëkk kiñaan gu mag jàpp leen ba ñu jàpp ndaw ya tëj leen ca kaso ba waaye ci guddi malaakam borom bi ubbi buntu kaso ba génne leen ci biti naan dem leen taxaw ca kër yàlla ga te xamal nit ñi lépp lu jëm ci dund gu wóor gi bi ñu déggee loolu ñu dugg ca kër yàlla ga ci suba teel daldi waare bi ñu koy def saraxalekat bu mag ba ak ngàngooram ñëw woolu kuréelu attekat ya maanaam mbooloom njiiti bànni Israyil gépp ñu yónnee ngir jëli ndaw ya ca kaso ba waaye bi wattukatu kër yàlla ga agsee ca kaso ba gisuñu leen fa ñu daldi dellusi yégle ko ne fekk nañu kaso ba tëju bu wóor ak wattukat ya taxaw ca bunt ya waaye bi ñu ko tijjee fekkuñu kenn ci biir bi kilifaak wattukatu kër yàlla ga ak saraxalekat yu mag ya dégge loolu ñu daldi ciy jaaxle lool ñuy laajante fu lii di mujj noonu benn waay ñëw yëgal leen ne nit ñi ngeen tëjoon ñu nga taxaw ca kër yàlla ga di jàngal nit ñi ci kaw loolu kilifa ga ak wattukat ya dem jëli leen waaye boolewuñu ci fitna ngir ragal nit ñi sànni leen ay xeer bi ñu leen indee ñu dëj leen ci kanamu mbooloo ma saraxalekat bu mag ba laaj leen ne ndax terewuñu leen ci lu wér ngeen waare ci tur woowu te fi mu ne dajal ngeen yerusalem ak seen waare rax ca dolli yéen a ngi nuy fexe taqal deretu nit kooku waaye piyeer ak ndaw ya tontu leen ne déggal yàlla moo gën déggal nit yàllay sunuy maam dekkal na yéesu mi ngeen boomoon ci wekk ko ca bant ba te yàlla yëkkati na ko ci ndejooram mu nekk buur ak musalkat ngir may bànn israel rëccu ba mu baal leen seeni bàkkaar seede nañu loolu nun ak xel mu sell mi yàlla may ñi koy déggal bi ñu déggee loolu ñu mer ba seen xol di dagg ñu bëgg leen a waaye amoon na fa nit ku tudd gamaliyel bokk ci tarixaab farisiyen ya di xutbakat bu tedd ci yoonu musaa mu jóg ca mbooloo ma santaane ñu génne leen tuuti bi ñu ko defee mu ne leen yéen mbokki israyel moytu leen li ngeen di def nit ñooñu ndaxte bu yàggul tëddaas jógoon na mbubboo daraja ba lu mat ñeenti téeméeri nit takktoo ak moom te moomu nag rees na ko te ñi ko toppoon ñépp tasaaroo ba seen pexe nasax gannaawam it yuda mu galile jóg te jamono jooja ñu doon bind waa réew ma mu jógloo nit ñu bari ñu ànd ak moom moom itam dee na te ay nitam ñépp tasaaroo léegi maa ngi leen di wax génn leen ci mbirum ñooñu te bàyyi leen ñu dem ndaxte bu seen pas-pas mbaa seen jëf dee pexeem nit dina yàqu waaye bu fekkee ni ndogalu yàlla la du ngeen ko mën a fanq ngir ragal la jànkonte ak yàlla bi mu waxee loolu ñu fekk ko ci xalaatam ñu woo ndaw ya daldi leen dóor ay yar tere leen ñu waxati dara ci turu yéesu ba noppi bàyyi leen ñu dem ndaw ya nag jóge ca kanamu kuréelu àttekat ya bég ci li leen yàlla jàppe ñu yeyoo yenu toroxte ngir tur wa noonu bés bu nekk ca kër yàlla ga ak ca kër ya daawuñu noppee jàngale ak a xamle xabaar bu baax bi ne yéesu mooy almasi bi jëf ya saar juróom gën a bari yawut yi làkk grek tàmbalee ñaxtu ci mbirum yawut tigi yi te lii ko waral jigéen ñi seen jëkkër dee te ñu bokk ci ñoom naraalewuñu leen ci ndimbal lañuy séddale bés bu nekk noonu fukki ndaw ya ak ñaar woo mbooloom taalibe ya ne leen nu bàyyi kàddug yàlla di toppatoo mbirum seddale loolu jëkkul ci ñun kon nag mbokk yi tànn leen juróom ñaari nit ci seen biir ñu am seede su rafet te fees ak xel mu sell mi ak sago nu denk leen liggéey bii waaye nun dinanu wéy ci ñaan ci yàlla ak ci yenub xamle kàddu gi lii ñu wax nag neex na mbooloo mépp noonu ñu tànn Étienne di nit ku fees ak ngëm ak xel mu selli mi boole ci Filip ak Prokoor teg ca Nikanoor Timon Parmenas ak Nikola mi juddoo Antiyos te tuub ci yoonu yawut ya ñu jébbal leen ndaw ya ñaanal leen teg leen loxo noonu kàddug yàlla di law ba mboolem taalibe yi di yokk bu bare ci yerusalem te saraxalekat yu bare déggal yàlla ci topp yoonu ngëm wi naka noonu Etienne mi fees ak yiw ak kàttan di def ay kéemaan yu mag ak ay firnde ci nit ña waaye ay nit jóg bokk ca jàng bu ñuy wax jàngub ni ñu goreel di ay nit yi dëkki sireen ak aleksandri ak it waa diiwaanu silisi ak asi ñuy werante ak etiyen waaye àtte nuñu sagoom ak xel mi muy waxe kon ñu daldi jënd ay nit ñu ne dégg nañu ko muy sosal musaa ak yàlla noonu ñu jógloo nit ñi ak njiit yi ak xutbakat yi ñu dal ci kawam jàpp ko yóbbu ko ca kuréelu àttekat ya te ñu sàkk ay naafeq yuy seede ne kii du bàyyee wax lu juuyoo ak barab bu sell ba ak yoonu musa ndaxte dégg nañu muy wax ne yéesu nasaret moomu dina daaneel barab bii te soppi aada yi nu musaa batale woon bi ñu ko waxee ña ñépp ca mbooloo ma xool ko jàkk gis xar kanamam mu mel ni xar kanamu malaaka jëf ya saar noonu saraxalekat bu mag ba ne ko ndax loolu dëgg la Etiyen tontu ko yéen samay mbokk ak samay baay déglu leen yàlla mi boroom ndam feeñu woon na sunu maam Ibrahima bi mu nekkee réewu Mesopotami te dëkkagul woon karan mu ne ko toxul sa réew bàyyi say mbokk te ñëw ci réew mi ma lay woon ci kaw loolu mu génn réewu niti kalde dëkk si karan te bi baayam faatoo yàlla toxale ko foofa dëwal ko ci réew mi ngeen dëkk léegi waaye mayu ko fa genn moomeel gu mu war a donnale du sax fu mu mën a teg tànkam waaye dig na ko ne dina ko may réew mi mu yilif ko moom ak askanam fekk booba amagul doom yàlla ne ko ñi soqi ko ci yow dina dinañu ganayaan ci réew mu nu dëkkul des na leen def ay jaam di leen fitnaal diirub ñeenti téeméeri at waaye yàlla nee na xeet wi leen jaamloo man maa leen di àtte te ginnaaw loolu dinañu génn di ma jaamu ci barab bii yàlla nag tëral kóllëre seen diggante fas ko ci màndargaam xaraf noonu Ibrahima jur Isaaxa xarafal ko ci juróom ñetteelu fan ba Isaaxa def noonu Yanqooba Yanqooba it def noonu fukki maam ya ak ñaar ñi sos xeet wi naka maam yooyu dañoo iñaane Yuusufa ba jaay ko mu jëm réewu Misra waaye yàlla taxawu ko génn ko ci coonoom yépp defal ko yiw ak xel ci kanam na buuru misira mu def ko kilifaak misira ak këram gépp bi loolu amee xiif tàbbi ci biir misira ak réewu kanaan mépp ba toskare ja metti lool te sunuy maam amatuñu lu ñu lekk ba nag dégg ne misira am na dugub mu yebal ca sunuy maam ñu dem fa yoon wu jëkk ba fa ay doomi baayam delloo nag yuusufa xàmmeeku leen te firawna xamante ak njabootam ci kaw loolu yuusufa yeble woo baayam ak mbokkam yépp ñuy juróom ñaar fukki nit ak juróom noonu yanqooba dem misra faatu fa moom ak sunuy maam gannaaw loolu ñu yóbbu seeni néew sikam dugal leen ca bàmmeel ba ibrahima jëndoon ak xaalis ca doomi emoor ca sikam bi loolu wéyee jamono ji jegewoon na ngir yàlla amal li mu digoon Ibrahima ci ngiñ fekk xeet wa di law tey gën a bari ci misra ba keroog beneen buur bu xamul yuusufa di falu ci misra buur boobu nag dafa daan nax sunu xeet di fitnaal sunuy maam ba di leen sànniloo seeni doom ngir ñu dee booba nag la muusaa juddu di ku rafet ci kanamu yàlla ñu yor ko ñetti weer ci biir kër baayam ba noppi sànni ko noonu doom ju jigéen ju firawna for ko yar ko ni doomam musaa nag di ku yeewu ci xam-xamu waa misira bépp di jàmbaar ci wax ak jëf bi mu demee ba am ñeent fukki at mu fas yéene seeti ay mbokkam maanaam bànni israyil noonu mu gis ca ku ñuy néewal doole mu sotle ko fayul ko ba dóor waay misire ja mu defe ne ay mbokkam dinañu xam ne ci loxoom la leen yàllay musale waaye xamuñu ko ci ëllëg sa mu juux ci ay yawut yuy xeex mu di leen jéem a jubale ne leen yéen ay mbokk ngeen lu tax ngeen di xeex waaye kiy néewal doole moroomam bëmax ko ne ku la teg kilifa ak àttekat ci suñu kaw ndax danga ma bëgg rey ni nga defoon démb waaye misira ja bi musaa déggee wax jooju mu daldi daw dem réewu Madian di fa ab doxandéem mu séy fa ba am ñaari doom lu ko wees ñeent fukki at nag bi mu nekkee ca màndingu tund Sinaay yi malaaka feeñu ko ci tàkk-tàkku safara ci biir asngarab bi ko musaa gisee mu daldi waaru ci li mu gis mu jigéen si ngir niir ko dégg baatu boroom bi ne ko man maay sa yàllaay maam di yàllaay Ibrahima Isaaxa ak ba ci kaw loolu musa tiit bay lox te ñemeetu xool noonu borom bi ne ko sumil say dàll ndaxte barab bi nga taxaw barab bu sell la gis naa bu baax fitnaay samay xeet ci Misra te dégg naa seeni tabat kon wàcc naa ngir musal leen léegi nag ñëwal dinaa la yebal misra musaa moomu bañoon nañu ko bani ko ku la teg kilifa ak àttekat waaye moom la yàlla yebal jaarale ko ci malaaka mi ko feeñu ca ngarab sa ngir mu nekk kilifa gu leen di goreel moo leen génne réewu misra di def ay kéemaan ak ay firnde ca réew ma ca géej gu xonq ga ak ca màndiŋ ma diirub ñeent fukki at musaa moomu moo ni woon bànni israyil yàlla dina leen feeñalal ci seeni mbokk yonent bu mel ni man te moo nekkoon ak mbooloo ma ca màndiŋ ma ànd ak sunuy maam wettalikoo malaaka mi waxoon ak moom ci tund sinaay yi te mu jote ci yàlla kàddu yi dund ngir jottalinu ko waaye sunuy maam nanguwuñu ko déggal dañu ko bañ te seeni xel dëpp dellu misira ñu sant aarona ne sàkkal nu ay yàlla yuy jiitu ci sunu kanam ndaxte musaa male nu génne ci réewu misra xamunu lu ko dal booba nag ñu tëggulu aw sëllu muy xërëm ñu di ko tuuru di bànneexu ci seeni jëfi loxo waaye bi ñu ko defee yàlla dëddu leen bërgël leen ñuy jaamu biddiwi asamaan moom lañu bind ci téere yonent yi ne yéen bànni Israyel ndax rendi ngeen jur jébbal ma boole ko ak i sarax diirub ñeen fukki at ca màndiŋ ma yóbbu ngeen sax fu nekk tànt bi màggalukaayu molok ak biddiwub rafan bi ñu daan bokkaaleel yàlla di ay nataal yi ngeen defoon ngir màggal leen kon nag dinaa leen toxal yóbbu leen ci ginnaaw réewu babilon sunuy maam amoon nañu ca màndiŋ ma tànt màggalukaay bi ëmboon li yàlla seede tànt boobu nag defoon nañu ko roye ko ci bi musaa gisoon ni ko ko yàlla sante woon te gannaaw ga bi Yosuwa nekkee kilifaak sunuy maam ñu jot tànt ba ñoom it yóbbu ko ca réew ma ñu nangu ca xeet ya yàlla dàqe ci seen kanam tànt ba nekk fa ba ci jamonoy daawuda moom yiw na fa kanam yàlla mu ñaan ko mu sàkkal ko kër ngir askanu ba waaye suleymaan moo tabaxal yàlla kër ga moo na aji kawe ji du dëkk fu loxool nit defar moom la ab yonent wax ne asamaan mooy sama jal te suuf mooy sama tegukaayu tànk kon gan kër ngeen may tabaxal mba fan mooy sama bërëbu nappalukaay ndax du sama loxo moo defar yëf yooyu yépp moom la borom bi doon wax yéen ñi dëgër bopp ànd ak xol buy bañ ak ay nopp yuy fat mel ni ñi xamul yàlla du ngeen noppee ka diiroo ak xel mu sell mi eh, ni ko seen baay yi daan defe noonu ngeen di defe yéen itam kan ci yonent yàlla seeni maam tegul woon ay fitna rey nanu ñi doon yégle ñëw aju jub ji moom mi ngeen jébbale léegi ba ñu rey ko jot ngeen yoonu musaa wi yàlla wàcce jaarale ko ci ay malaaka te sàggane ngeen ko bi ñu déggee loolu nag seeni xool di dagg ñu yeeyu jëm ci kawam waaye Étienne mi fees ak xel mu selli mi ne jàkk ci asamaan gis ndamu yàlla te gis yéesu mi taxaw ci ndeyjooru yàlla mu ne seetleen maa ngi gis asamaan yi ubbiku te doomu nit kaa ngi taxaw ci ndejooru yàlla bi ñu déggee loolu ñu daldi xaacu ca kaw te dar seeni nopp ñu ànd ne milib ci kawam ñu watwatee ko génne ko dëkk ba dóor ko ay doj ba mu dee seede ya tegoon nañu seeni yéere ci tànki waxambaane wu tudd sowul noonu ñu dóor Étienne ay doj muy ñaan yàlla ne borom bi yéesu nangul sama ruu bi mu ko waxee mu sukk wax ak baat bu kawe borom bi bu leen bindal bàkkaar bii ba noppi mu nelaw sowol moom ànd na ci ñi doon rey Étienne jëf ya saar juróom ñett bés booba nag fitna ju metti dal na ci mbooloom ñi gëm ñi nekk Yerusalem ba ñépp ñi mooy ndaw ya tasaaroo ci diiwaanu Yude ak Samari ay nit ñu ragal yàlla fab Étienne jébbal ko borom bi di ko jooy bu wér waaye naka sool mu ngay tas mbooloom ñi gëm di tàbbi ci kër ya tey jàpp góor ak jigéen di leen tëj kaso ñi tasaaroo nag dem fu nekk di fa xamle xabaar bu baax bu kàddug yàlla naka filip mu dem ca benn dëkk ca samari di leen yégal kirist bi ko mbooloo mi déggee te gis kéemaan yi muy def ñu bokk benn xalaat fekk ko ci li mu wax ndaxte ay rab yu bon bàyyi nañu nit ñu bari ñañu jàppoon di yuuxu ca kaw te ñu bari ñu làggi ak ñu la fañ daldi wér noonu mbég mu réy tàbbi ca dëkk ba amoon na nag nit ku tudd Simon di luxuskat bu yàgg ca dëkk ba te daan yéem waa Samari gépp ci naan aji màgg la kon ñépp mag ak ndaw taq ci moom ne kii mooy jaas yi aji kàttan ji ñu taq ci moom ndax li mu leen yàgg waar ci ay luxus waaye bi ñu gëmee xabaar bu baax bi Filip yégle jëm ci nguuru yàlla ak turu yéesu Kirist góor ak jigéen daldi nangu ñu sóob leen ci ndox Simon sax gëm ñu sóob ko ci ndox muy wéy nag ci topp Filip di waaru ci kéemaan yi ak firnde yu màgg yi am bi nga xamee ne ndaw yi nekk Yerusalem yëg nañu ne waa Samari nangu nañu kàddu yàlla ñu yónnee fa Piyeer ak Yowaana ñu dem fa nag ñaanal leen ngir ñu jot xel mu sell mi ndaxte wàccegul ci kenn ci ñoom waaye sóoboon nañu leen rekk ci ndox ci turu borom bi yéesu noonu Piyeer ak Yowaana teg leen loxo ñu jot xel mu sell mi yàlla may na xel mi jaarale ko ci loxooy ndaw ya mu indi leen xaalis ne leen may leen ma sañ-sañ boobu ba ku ma teg samay loxo nga jot xel mu sell mi waaye Pierre ne ko asarul ak sa xaalis yow mi yaakaar ni man ngaa jënd mayu yàlla ak xaalis amuloo benn wàll mbaab cër ci lii ndaxte sa xol laabul ci kanamu yàlla rëccul nag sa coxor te ñaan borom bi mu bàll sa xalaatu xol su ma nee am ndaxte gis naa ne sóobu nga ci lu wex xat ci kanamu yàlla te bàkkaar noot na la simon nag ne leen ñaanal leen ma ci borom bi ngir mu feggal ma li ngeen wax noonu bi ñu seedalee yàlla te wax ci kàddoom ñu dellu yerusalem di xamle xabaar bu baax bi ci dëkk yu bari yu waa samari naka noonu benn malaakaam borom bi ne filip jógal te jublu misra jaar ci yoon wi jóge Yerusalem jëm Gasa di Manding Filip jóg dem noonu mu gis fa nitu Étiopi ku yoom di jaraaf ju mag ci Kandaas buur bu jigéen bu Étiopi te di ko watul xaalisam bépp fekk mu ñëwoon Yerusalem ngir màggal si yàlla bay dellu mu toog ci witiiram di jàng téereb yont yàlla Esayi xel mi nag ne Filip dabal watir wale noonu filip daw si mu dégg waayi etiopi ja di jàng téereb yonent yàlla esayi yi mu laaj ko ndax xam nga li ngay jàng mu tontu ko ne nu ma ko mën a xame su ma ko kenn firilul mu wow filip nag mu yéeg toog ak moom fekk aay yi la doon jàng ci mbind mi yóbbu nañu ko ni xar mu ñuy rendi ji ni mburtu mu luu ci kanamu watkat mu ne cell ci toroxteem nangu nañu dëkkam ñi mu tollal jamono ku ci xalaat lii jële nañu bakkanam ci àddina jaraaf ja nag ne Filip maa ngi lay laaj ci mbirum kan la yonent bi jëmale wax ji ndax mbirum boppam lay wax mbaa mu keneen noonu Filip tàmbali ci aaya yooyu xamal ko xabaar bu baax bi ci mbirum Yeesu bi ñu jaar ci yoon wi ñu agsi ci ndox jaraaf ja ne ko ndox a ngi nii ana lu tere nga sóob ma ci mu santaane nag ñu taxawal watiir wa filip ak jaraaf ja wàcc ñoom ñaar ci biir ndox ma mu soob ko ca ba noppi ñu génn ca ndox ma te ca saasa xelu borom bi fëkk filip ba jaraaf ja gisatu ko waaye mu toppaat yoonam ànd ak mbég filip moom teeri dëkku asot muy jaar ci dëkk yépp di fa xamle xabaar bu baax bi ba kera muy ñëw dëkku sesaare jëf ya saar juróom ñeent naka sowool mi tëkkoorey taalibe borom bi ba di ko noyee far mu dem nag ca saraxalekat bu mag ba laaj ko ay bataaxal yu mu yóbbul jànguy dëkku damaas noonu ñu mu fa fekk te ñu bokk ci yoon wi góor mbaa jigéen mu am dogalu yeew indi leen yerusalem waaye bi muy jub damaas ca saasa leer gu jóge asamaan melax ba ëmb ko mu daanu ci suuf dégg baat bu ko ne sool sool lu tax nga di ma fitnaal mu wuyu ne yaay kan borom bi borom bi ne ko maa yeesu mi ngay fitnaal waaye jógal dugg ca dëkk ba te dinañu la wax li nga war a def nit ñi ànd ak moom nag taxaw waaru ba luu ci li ñu dégg baat bi te gisuñu kenn noonu soowal jóg xippi waaye gisul dara kon ñu womat ko yóbbu ko damaas diirub ñetti fan gisul dara lekkul naanul amoon na nag ci damaas taalibe bu tudd ananiyaas bi loolu amee nag boroom bi feeñu ko ne ananiyaas mu wuyu maa ngi ni borom bi borom bi ne ko jógal nga jaar ci mbedd mi ñuy wax mbedd mu jub mi te seet ci kër yuda nit ku tudd sowool te dëkk tars ndaxte mu ngay ñaan te gis naa ci mpeeñu nit ku tudd ananiyaas mu dugg teg ko ay loxo ba muy gisaat waaye ananiyaas tontu ko ne borom bi dégg naa ci nit ñu bari ci mbirum kooku ñu seede lu bari lu bon lu mu def say gaay ci Yerusalem te indaali na fii sax sañ-sañ bu jóge ca saraxalekat yu mag ya ngir yeew képp kuy tudd saw tur waaye borom bi ne ko demal ndaxte maa ko tànn muy sama jëfandikaay ngir yóbbu sama tur fa kanam ñi nekkul yawut ak fa kanam buur yi ak bànni Israyel te dinaa ko won coono yu bari yu mu war a dékku ngir sama tur ci kaw loolu ananiyaas dem dugg ca kër ga teg ay loxoom sowal mu ne ko sowal sama mbokk borom bi yeesu mi la feeñu woon ci kaw yoon wi bi ngay dikk moo ma yónni ngir nga dellu di gis te fees ak xel mu sell mi ca saasa lu mel ni ay waasintóor génn ci ay bëtam mu daldi gisaat noonu mu jóg ñu sóob ko ci ndox ba noppi mu lekk amaat doole bi mu ko defee mu toog ay fan ak taalibe ya nekk damaas ca saasa mu yégle ca jàngu ya ne yéesu mooy doomu yàlla ñi ko dégg ñépp waaru naan ndax du kii moo daan tas ñi tudd tur woowu ci yerusalem te mu ñëw fii ngir yeewu leen yóbbu ci kanamu saraxalekat yu mag ya na sawool di gën a am kàttan bay jaaxal yawut yi dëkk damaas ci di leen wax ay firnde ne yéesu mooy almasi bi bi ñu ca tegee ay fanni fan yawut yi daldi gise ngir reylu ko waaye sawool yëg seen pexe fekk guddi ak bëccëg ñu doon wottu bunt yépp ngir man koo boom noonu taalibe yi jël ko ci guddi def ko ci dàmba gu réy jaalale ko ci miir bi yoor ko ci suuf bi sewul agsee yerusalem mu jéem a ànd ak taalibe yi waaye ñépp ragal ko ndax gëmuñu woon ak taalibeem ci kaw loolu barnabaas jël ko yóbbu ko ca ndaw ya nettali leen ni sowal gise borom bi ci kaw yoon wi ak li mu ko wax rax ca dolli fit wi mu doon waxe ci turu yéesu ci damaas noonu mu nekk ak ñoom ci yerusalem di dugg ak a génn di wax ak fit ci turu borom bi muy wax ak di werante ak yawut yi làkk grek waaye ñu di ko wuta rey bi ko mbokk yi yégee nag ñu yóbbu ko ci dëkku sesaare yebal ko dëkku tars noonu mbooloom ñi gëm nekk ci jàmm ci biir diwaanu yude gépp ak galile ak samari ñuy gën a dëgër di wéy ci ragal yàlla te yokk ci ndimbalu xel mu sell mi piyeer nag di wër di jaar fu nekk tey dem ci gaayi yàlla yi dëkk lidd mu gis fa nit ku làggi tudd ene tëdd ci basan diirub juróom ñetti at piyeer ne ko ene yeesu kirist faj na la jógal te defar salal noonu mu daldi jóg ca saasa bi ko waa diwaani lidd ak saron gépp gisee ñu daldi woññeeku ci borom bi amoon na nag ci dëkku yoppe taalibe bu jigéen bu tudd tabita liy tekki dorkaas te muy wéy ci jëf yu baax ak saraxe ca fan yooyu mu daanu wopp ba faatu noonu ñu sangu ko teg ko ca néeg ba sut ca taax ma ginnaaw li du sorewul ak yoppe nag te taalibe yi dégg ne piyeer a nga fa ñu yónnee ko ñaari nit ñaan ko mu ñëw ci ñoom ci saa si bi ko piyeer déggee mu jóg ànd ak ñoom bi mu ñëwee ñu yóbbu ko ca néeg bu kawe ba fekk fa ay jigéen ñi seen jëkkër faatu ñu daldi wër piyeer ñépp di jooy di ko won kamisol ya ak mbubb ya dorkaas daan defar ci dundam ci kaw loolu piyeer génne ñépp ci biti mu sukk ñaan ci yàlla ba noppi wëlbatiku ca néew ba ne ko tabitaa jógal noonu mu xippi gis piyeer daldi toog piyeer may ko loxo yëkkati ko mu woo gaay yàlla ya ak jigéen ña won leen ko muy dund mbir mi siiw ca yoppe gépp ba ñu bari gëm borom bi ginnaaw loolu piyeer toog ay fan ci yoppe ci këru ku tudd simon miy wullikat jëf ya amoon na ci sesaare nit ku tudd korney nekk njiitu xare mu bokk ci mbooloom xare mi ñuy wax mu itali moom nag ku farlu woon ci yàlla la te ragal ko moom ak waa këram gépp muy sarax ñu bari ci bànni israyel tey saxoo ci ñaan ci yàlla am bés ci tisbaar nag mu am peeñu gis bu leer malaakam yàlla feeñu ko né ko korney noonu korney ne ko jàkk daldi tiit ne ko kilifa gi lu mu doon malaaka ma ne ko say ñaan ak say sarax yéeg na fa kanam yàlla te nangul na la yónni léegi nag ay nit ci dëkku yoppe ñu woo ku tudd Simon mi dàkkantele piyeer mu nga dal fa simon wullikat bi këram nekk ci wetu géej bi malaaka mi doon wax ak moom demee korney woo ñaar ci ay surgaam ak benn xarekat bu farlu ci yàlla ci ñi koy toppatoo mu nettali leen lépp yebal leen yoppe ca ëllëg sa ba ñuy jaar ca yoon wa ba jub dëkk ba piyeer yéeg ca kaw taax ma ci dëgg bëccëg ngir ñaan ci yàlla noonu xiif dab ko fa mu bëgg a lekk waaye bi ñu koy toggal yàlla feeñu ko mu xool asamaan ubbeeku gis lu mel ni sér bu mag bu ñu téye ci ñeenti laaf ya yoor ko mu jëm suuf boroom ñeenti tànk yépp ñu nga ca ak yi raam ci suuf ak picc asamaan te baat ne ko jógal piyeer reyte lekk waaye piyeer tontu ko mukk borom bi ndaxte musuma lekk dara lu daganul mbaalu araam waaye baat bi wax ak moom ñaareelu yoon ne ko lu yàlla sellal bu ko araamal ñu def ko nag ba muy ñetti yoon ba noppi ñu ne cas sër ba jëme asamaan bi loolu amee piyeer jaaxle lool ci lu miy tekki fekk booba nit ñi korne yebal laajte woon nañu kër simoŋ ba agsi ci bunt bi ñu woote nag naan simoŋ mi ñuy dàkkantele piyeer ndax fii la dëkk bi piyeer di rabal xelam ci peeñu ma xel mi ne ko ñetti nit a ngi nii di la wut jógal nga wàcc te ànd ak ñoom bul werante ndaxte maa leen yebal piyeer wàcc nag ne nit ñi maa ngi nii man mi ngeen di wut lu doon seeni tànk ñu tontu ko korney njiitu xare ba nit ku jubla te ragal yàlla ba am seede su rafet ci bànni israyil gépp malaaka mu sell nag sant na ko mu woolu la ci këram te déglu li ngay wax ci kaw loolu piyeer dugal leen dalal leen bi bët setee piyeer jóg dem ak ñoom ànd ak ñenn ci mbokk yi dëkk yoppe te bés ba ca topp mu dikk sesaare fekk korney woo na këram ay mbokkam ak xaritam yi ko gën a jige di xaar piyeer bi piyeer duggee nag korney daje ak moom daanu ci tànkam sargal ko waaye piyeer yëkkati ko ne jógal ma nit nit rekk laa noonu muy waxtaan ak moom dugg si fekk fa ndajeem nit ñu bari mu ne leen xam ngeen ni aaye nañu yawut mu jaxasoo ak ñi mu bokkalul xeet mbaa mu dugg ci këram waaye yàlla won na ma ne waruma ne kenn setul mbaa araam na loola tax bi ngeen ma wooloo ñëw naa ci lu àndul ak werante maa ngi leen di laaj nag lu ngeen may doye ci kaw loolu korney tontu ne ñetti fanaa ngi nii may ñaan ci sama biir kër ci waxtu wii maanaam tisbaar ci saa si ku sol yére yuy melax taxaw ci sama kanam mu ne ma korney sa ñaan nangu na te say sarax àgg nañu fa kanam yàlla yónneel nag ci yoppe woolu simon mi ñu dàkkantele piyeer mu ngi dal ci kër simon mi wullikat ca wetu géej ga yónnee naa nag ci ni mu gën a gaawe woolu la te maa ngi lay sant ci li nga ñëw léegi nag ñun ñépp nu ngi fii ci kanamu yàlla ngir déglu lépp li la borom bi sant noonu Pierre jël kàddu ga ne leen ci dëgg gis naa ne yàlla du gënale waaye ci xeet yépp ku ko ragal tey def lu jub moom lay nangu yónnee na kàddoom bànni Israyel di leen xebaar jàmm jaalale ko ci yéesu Kirist mii borom lépp xam ngeen li xewoon ci réewu yawut yépp li ko tàmbalee ci diiwaanu galile topp ci waareeb yaxya mu naan nit ñi mu sóob leen ci ndox xam ngeen ni yàlla fal na yéesu nasaret sol ko xel mu sell mi ak kàttan muy wër di def lu baax ak di faj ñépp ñi nekkoon ci kilifteefu seytaane ndaxte yàlla àndan na ak moom seede nañu li mu def lépp ci biir réewu yawut ya ak yerusalem moonaree nañu ko ci wekku ko ci bant waaye yàlla dekkal na ko ci ñetteelu fan ba te biral ko waxuma xeet wépp waaye seede yi yàlla tànn lu jiitu maanaam ñun ñi daan lekk di naan ak moom gannaaw ndekkiteem te yéesu sant nanu ñu yëgal xeet wa di seede ne moom la yàlla jagleel àtteeb ñiy dund ak ñi dee yonent yépp nañu ko ne ku ko gëm yàlla dina la baal say ci turam bi piyeer di wax loolu xel mu sell mi wàcc ci kaw ñépp ñiy déglu kàddu ga yawut yi gëm yépp nag ñi ànd ak piyeer daldi waaru ci li yàlla tuur xel mu sell mi mu maye ci ñi dul yawut itam ndaxte dégg nañu leen ñuy wax yeneen làkk ak di màggal yàlla booba piyeer daldi wax ne ñi jot xel mi sell mi ni nun ndax mënees na leen a bañ a sóob ci ndox noonu mu santaane ñu soob leen ci ndox ci turu yeesu kirist ginnaaw loolu ñu ñaan ko mu toog ci ñoom ay fan jëf ya benn bi loolu amee ndaw ak mbokk yi nekk ci diwaanu yude dégg nañu ne ñi dul yawut nangu nañu kàddu yàlla bi piyeer demee yerusalem nag kuréelu yawut gi faratal xaraf di werante ak moom ne ko lu tax nga dem ca këru ñu xaraful bay lekk sax ak ñoom noonu piyeer daldi leen benn beneen mbir mi nettali leen ko ne nekkoon naa ca dëkku yoppe di fa ñaan ci yàlla ba far sama xol seey ci moom noonu ma am peeñu lu mel ni sër bu mag wàcc jóge ci asamaan ñu yoor ko ca ñeenti laafiya mu ñëw ba ci man ma xool ko jàkk seetlu ko bu baax ma gis ca boroom ñeenti tànk yu nekk ci kaw suuf di rabi àll yi yiy raam ak picc asamaan te dégg naa baat bu ma ne jógal piyeer rey te lekk waaye ma tontu ne mukk borom bi ndax dara lu daganul mbaalu araam musula dugg ci sama gémmiñ waaye ñaareel bi yoon baat bi dellu ne ma lu yàlla sellal bu ko araamal loolu am ba muy ñetti yoon ba noppi ñu ne cas lépp jëme asamaan ca saasa ñetti góor ñañu yebal ci man jóge sesaari agsi ci kër ga ma dal te xel mi ne ma àndal ak ñoom te bu ci werante juróom benn mbokk yi fi teew gunge woon nañu ma ba ñu dugg ca kër góor googu mu nettali nu ne gis na malaaka feeñu ko ca këram ne ko yónneel ca dëkku yoppe woolu simon mi ñu dàkkantele piyeer dina la xamal ay wax yu lay musal yow ak sa waa kër gépp bi ma tàmbalee wax nag xel mu li mi wàcc ci ñoom ni mu wàcce woon ci nun bu jëkk bi loolu amee ma fàttaliku li borom bi wax ne yax Yaxya ci ndox la daan sóobe waaye yeen des na leen sóob ci xel mu sell mi ginnaaw nag yàlla jagleel na leen may gi mënu mayoon bi nu gëmee Yeesu Kirist borom bi man maay kan bay tebbi àtteb yàlla bi ñu déggee loolu amuñu dara lu ñu ca teg ñu daldi màggal yàlla ne yàlla nag may na ñi dul yëwut it ñu tuub seeni bàkkaar ba am dund gu wóor gi ñi tasoon nag ndax fitna ji amoon gannaaw Étienne ñu dem ba diwaanu Fenisi ci duni Sipar ak ci dëkku Antiyos di wax kàddu gi waaye yemale ko ci yewut yi moo na amoon na ci ñoom ay nit niti sippar ak dëkku Sireen ñu ñëw ci Antiyos ba seen wax law ci grek yi it ñu di leen xamal xabaar bu baax bu yéesu borom bi te loxo borom bi ànd ak ñoom ba mbooloo mu mag gëm te woññeeku ci borom bi bi mbir mi siiwee ba àgg ci noppi mbooloom ñi gëm ci Yerusalem ñu yebal Barnabaas ba Antiyos bi mu agsee nag ba gis yiw wi leen yàlla may mu beg ci te di leen xiir ñu wàkkirlu ci borom bi te dogu ci ndaxte nit ku baax la woon te fees ak xel mu selli mi ak ngëm noonu mbooloo mu bari dolleeku ci borom bi ginnaaw loolu barnabaas dem ca dëkku tars di wut sowool bi mu ko gisee mu indi ko antiyos noonu atum lëmm ñu bokk ak mbooloom ñi gëm di jàngal nit ñu bari te ci antiyos lañu jëkk a tudde taalibe ya gaayi kirist ca fan yooyu ay yonent jóge yerusalem ñëw antiyos kenn ci ñoom tudd agabis jóg mu yégle jaarale ko ci xelu yàlla mi ne xiif bu metti dina daj àddina sépp loolu nag amoon na ca ayuk buur ba ñuy wax Claude kon taalibe ya fas yéene sàkk ndimbal jëme ca mbokk ya dëkk diwaanu yudde ku nekk ak sa kem kàttan noonu lañu def nag teg ko ci loxooy Barnabaas ak Sowol yónnee ko njiit ya jëf te jamono jooja erod buur ba jàppoon na ay nit ci mbooloom ñi gëm ngir fitnaal leen noonu mu daldi jàpp saak doomu ndeyu yowaana mu reylu ko ci jaasi bi mu gisee nag ne mbir moomu neex na yawut ya mu daldi jàppit piyeer fekk loolu daje ak bésu màggalu yawut ga ñuy wax mburu ya amul lawiir bi mu ko jàppee mu tëj ko kaso teg ko ci loxoy ñeenti mboolooy xarikat ngir ñu wattu ko fekk mbooloo mu ci nekk di ñeenti nit amoon na yéene yóbbu ko ci kanamu yawut ya ginnaaw màggalu bésu jéggi ba noonu ñuy wattu piyeer ca kaso ba waaye mbooloom ñi gëm di ko ñaanal yàlla ak seen xol bépp bi erod nekkee ci tànki indi lu ko ci guddi googa yeewoon nañu piyeer ak ñaari càlla la mu nelaw diggante ñaari xarekat te ay xarekat di wattu buntu kaso ba ca saasa malaakam borom bi ñëw te leer ne ray ca néeg ba malaaka ma dóor piyeer ci wetam yee ko ne ko jógal bu gaaw noonu jëng yarot ciy loxoom malaaka ma ne ko takkal sa geño te sol say dàll mu def ko malaaka ma ne ko solal sa mbubb te topp ci man piyeer génn topp ca malaaka ma fekk gëmul sax ne lu am la waaye mu yaakaar ne peeñu la noonu ñu weesu wattukat bu jëkk ba ak ba ca tegu ñu egsi ca buntu weñ ba jëm ca dëkk ba mu daldi ubbikul boppam ci seen kanam ñu génn nag jaar ci benn mbedd malaaka ma daldi ko bàyyi bi xelam dellusee ci moom piyeer ne léegi xam naa ci lu wóor ne borom bi yónni na malaakaam musal ma ci loxoy erod ak li ma yawut ya yéene woon lépp mu rabal xelam ci loolu daldi dem kër maryaama ndeyu yowaana mi ñuy wooye màrk fekk ñu bari booloo fa di ñaan ci yàlla noonu piyeer fëgg buntu kër ga te mbindaan mu tudd rood wuyusi ko mu xàmmi baatu piyeer bég ci ba fàtte koo ubbil waaye mu daw ci biir xamle ne piyeer a nga ca bunt ba ñu ne ko xanaa dangaa dof waaye mu dëgër ci li mu wax noonu ñu ne ko xanaa malaakaam la fekk piyeer di gën fëgg noonu ñu tijji gis ko daldi waaru piyeer taf loxoom ci gémmiñam ngir ñu noppi daldi leen nettali ni ko borom bi génnee ca kaso ba mu ne leen te ngeen jottali ko saak ak mbokk ya bi mu ko waxee mu jóge fa dem feneen bi bët setee nag yëngu-yëngu bu réy am na ca xarekat ya ñu ne ana piyeer noonu araat wutlu ko waaye gisu ko kon mu àtte wattukat ya joxe ndigalu rey leen bi loolu amee erod jóge ci diiwaanu yude dem dëkku sesaare toog fa fekk mu nekk ci xëccoo bu tàng ak waa dëkki tiir ak sidon naka noonu ñu ànd bëgg koo gis ñu neexal blastus bëkk néegu buur ba di ñaan jàmm ndaxte réewu buur ba moo doon dundal seen bos ca bés ba ñu jàpp nag erod sol mbubbu buuram toog ca jal ba ca àttekaay ba di leen yedd ak a dénk noonu mbooloo mi du yuuxu naan lii baatu yàlla la du baatu nit te saasa nag gannaaw màggalul yàlla malaakam boroom bi fàdd ko te ay sax dugg ko ba mu dee moona kàddug boroom bi di gëna màgg tey law naka barnabaas ak sowol bi ñu matalee seen liggéey ñu jege yerusalem ñibbi ànd ak yowaan mi tudd màrk jëf amoon na ca mbooloom ñi gëm mi nekk dëkku antiyos ay yonent ak ay jàngalekat maanaam barnabaas simeyon ku ñu dàkkantele niseer lusiyus mi dëkk sireen manayen mi yarandoo ak erod boroom diiwaan ba ak sawol am bés nag bi ñuy jaamu boroom bi ak di woor xel mu sell mi ne beral leen ma barnabaas ak sawol ngir liggéey bi ma leen wooye bi ñu ko déggee ñu daldi woor ak a ñaan teg leen ay loxo ba noppi bàyyi leen ñu dem noonu xel mu sell mi yónni leen ñu dem nag ci dëkku selusi dugg fa gaal jëm ci duñ bu ñuy wax sipar bi ñu teeree ca dëkku salamin nag ñu yégle fa kàddu yàlla ca jàngub yawut ya ku tudd yowaana ànd ak ñoom di leen jàppale ci liggéey bi noonu ñu jaar ci dun bépp ba àgg euh, dëkku pafos foofa ñu gis luxuskat bu tudd baar yeesu di yawut bu mbubboo turu yonent mu bokk ci gàngooru boroom réew ma tudd sersiyus polus di nit ku neex xel moom nag mu woolu barnabaas ak sowool ngir bëgg a dégg kàddug yàlla waaye elimaas boroom xam-xam bu ñuul bi ndaxte loolu la turam di tekki di leen dogale ngir bañ boroom réew ma gëm ci kaw loolu soowool mi tudd it pool daldi fees ak xel mu selli mi mu xool ko jàkk ne ko yow mi fees ak fenn ak lu bon di doomu ibliis tey noonu lépp lu jub ndax doo bàyyee dëngal yoon yu jub yu boroom bi léegi loxo borom bi dina dal sa kaw te dinga gumba ba dootuloo gis jant bi ab diir ca saasa nag ay bëtam muuru mu daldi tàbbi cig lëndëm muy làmbatu di wut ku ko wommat ba boroom réew ma gisee li xew nag mu daldi gëm di yéemu ci yoonu boroom bi naka noonu pool ak ñi mu àndal jóge pafos jaar ci géej jëm dëkku pers ci réewu pamfili yowaane nag tàggoo ak ñoom dellu yerusalem waaye ñoom ñu jóge pers aw ca yoon wa ba ñëw dëkku antiyos ci diiwaanu pisidi bésu noflaay ba nag ñu dugg ca jàngu ba toog bi ñu jàngee yoonu musaa ak yonent ya njiitu jàngu ba yónnee ca ñoom ne leen mbokk yi bu ngeen amee lu ngeen di dénk mbooloo mi wax leen ko noonu pool jóg tàllal loxoom ne leen yéen mbokki israyel ak yéen ñi ragal yàlla déglu leen yàllaay bànni israyel tànn na sunuy maam di yokku xeet wa ba ñuy ganayaan ci misra ba noppi mu génn leen fa ak kattanu loxoom dirum ñeen fukki at mu di leen muñal ca màndiŋ ma ginnaaw loolu faagal na juróom ñaari xeet ci réewu kanaan ba sunuy maam donn réew ma loolu lépp xew na ci diirub ñeenti téeméeri at ak juróom fukk ginnaaw loolu mu jox leen ay àttekat ba ci yonent yàlla samwil booba ñuy ñaan buur te yàlla jox leen sawool doomu kis ci giiru benyamin muy seen buur diirub ñeent fukki at ginnaaw ga mu jële ko fa dellu falal leen buur bu tudd daawuda mu seede ko nii gis naa daawuda doomu yeese ku ma neex ci sama xol te dinaa def lépp luy sama coobare noonu ci askanam yàlla indil na bànni israyel musalkat bi yeesu ci ni mu ko digee woon laata muy ñëw nag yaxya daana waare ne bànni israyel gépp ñu tuub seeni bàkkaar te mu soob leen ci ndox te ba yaxyay jeexal sasam mu ne ku ngeen may teg duma ki war a ñëw waaye am na kuy ñëw sama gannaaw koo xam ni kii yeewuma tekki ay dàllam mbokk yi yéen askanu Ibrahima ak yéen ñi ragal yàlla kàddug mucc gi ci nun la wàcc waa Yerusalem ak seeni kilifa xàmmewuñu woon yéesu te xamuñu woon waxu yonent yi ñuy jàng bésu noflaay bu nekk teewul ñu amal waxu yonent yi ci li ñu àtte Yeesu ba daan ko yoon dabu ko fenn moo na ñaan nañu pilaat mu reylu ko noonu ñu def lépp lu yonent yi bindoon ci mbiram ba noppi ñu wàcce ko ca bant ba tàbbal ko ci bàmmeel waaye yàlla dekkal na ko te diirub eh, ay fan yu bari feeñu na ñi àndoon ak moom jóge diiwaanu galile dem yerusalem léegi nag ñooy ay seedeem ci wetu xeet wi te ñu ngi leen di xamal xabaar bu baax ne leen li yàlla digoon sunuy maam def na ko ngir nun seeni sët ci li mu dekkal yéesu moom lañu bindoon ci ñaareelu saaru saboor ne yaa di sama doom maa di sa baay tey te it li ko yàlla dekkal ba mu bañatee jaar ci dee te suuf du ko lekk mukk moom la yàlla wax ne dinaa la may barke yu sell te wóor yi ma digoon daawuda moo tax mu waxaat feneen doo bàyyi sa waaju sell mu yàqu ndaxte bi daawuda defee coobareg yàlla ci jamonoom mu faatu ñu suul ko mu fekk ay maamam suuf lekk ko waaye ki yàlla dekkal yaramam seeyul kon nag mbokk yi na ngeen xam ni ci moom yeesu nu ngi leen di yégal mbalug bàkkaar yi te fépp fu yoonu musaa tële woon a àtte nit ni ku jub fa la di àtte ni ku jub képp ku ko gëm wattu leen nag bali yonent yi bindoon bañ leen a dal ci li ñu ne yéen ñi xeebaate gis leen lii ngeen yéemu ba far ndaxte dinaa def ci seen jamono jëf joo xam ne su ngeen ko déggee sax du ngeen ko gëm ba ñuy génn nag ca jàngu ba yawut yi ñaan leen ñu baamte wax ja ca bésu noflaay ba ca tegu te bi mbooloo ma tasee ay yawut yu bari ak ñu tuuboon ci yoonu yawut te ragal yàlla topp ci pool ak barnabaas ñuy diisoo ak ñoom di leen xiir ñu wàkkirlu ci yiwu yàlla noonu bésu noflaay ba ca tegu daanaka waa dëkk bépp daje ngir déglu kàddug yàlla waaye bi yawut yi gisee mbooloo ma ñu daldi fees ak kiñaan di wedd li pool di wax te di ko xas bi loolu amee pool ak barnabaas ne leen ci lu biir yéen lañu war a jëkk a yëgal kàddug yàlla waaye ginnaaw gàntu ngeen ko ba àtte seen bopp ne yeyewu leen dund gu jeex gi kon ñu ngi waññeeku ci ñi dul yawut ndaxte moom lañu borom bi sant ci li mu naan samp naa la nga nekk leeru ñi dul yawut ngir nga yóbbu mucc gi mu daj àddina ñi dul yawut nag bi ñu déggee loolu daldi bég tey màggal kàddu borom bi te ñépp ñi jagoo dund gudul jeex daldi gëm noonu kàddu borom bi di law ci diiwaan bépp waaye yawut yi xiir ay jigéen ñu woomle te farlu ci diine ñoom ak magi dëkk ba ñu fitnaal pool ak barnabaas ngir génne leen réew ma waaye pool ak barnabaas daldi yëlëb seen pëndu tànk ngir dëggal seeni weddi jëm dëkku ikoniyom naka taalibe ya nag ñu fees ak mbég ak xel mu sell mi jëf ya saar ak barnabaas nekkee ikoniyom nag ñu dugg ci jàngub yawut ya ni ñu ko daan defe ñuy waare ba mbooloom yawut ak grek mu bari gëm waaye yawut yi nanguwul yi ñoo jógloo ñi dul yawut di ñaawal seen njort ci mbokki taalibe yi pool ak barnabaas nag sax nañu ci ikoniyom lu yàgg ñu wéeru ci borom bi bay wax ak fit wu dëgër te yàlla dëggal kàddu giiwam ba may leen ñu def ay kéemaan ak ay firnde noonu waa dëkk bi xàjjalikoo ñii far ak yawut yi ñële far ak ndaw ya waaye ñi dul yawut ak yawut yi ñoom ak seeni kilifa lal pexem fitnaal leen ci sànni ay doj bi ko pool ak barnabaas yégee nag ñu daw ca diiwaanu likaw ni ca dëkk ya ñuy wax litsaar ak derb ak wallaaya foofa ñu di fa xamle xabaar bu baax bi amoon na ca listaar nag nit ku fa toog ku ay tànkam làggi ndax li mu judduwaale la fañ te musula dox moom nag muy déglu pool miy noonu pool xool ko jàkk gis ne am na ngëm ngir wér mu ne ko ak baat bu dëgër jógal taxaw bu jub noonu nit ki ne bëret jóg daldi dox bi mbooloo mi gisee li def ñu daldi yuuxu ne ci làkku waa likaw ni yàlla yi soppeeku nañu nit wàcc ci nun noonu ñu tuddee Barnabaas Soos te tuddee Pool Hermes ndaxte mooy ki yor wax ji fekk ca buntu dëkk ba amoon na fa kër gu ñuy màggale soos saraxalekat ba nag ànd ak mbooloo ma daldi indi ca bunt ya ay yëkk ak ay caq yi ñu defaree tóor-tóor ngir màggal leen ci tuur deretu mala waaye bi ko ndaw yi ak barnabaas ak sowol déggee ñu sib ko ba xotti seeni yére ñu daldi daw tàbbi ca mbooloo ma di wax ci kaw ne yéen nit ñi ñu leen xiir ci lii nu nit ay nit lañu ñu bokk bind ak yéen te ñu ngi leen di xamal xabaar bu baax ne leen ngeen dëddu yëfi neen yii te woññeeku ci yàlla miy dund te sàkk asamaan suuf géej ak li ñu ëmb lépp démb mayoon na xeet yépp ñu aw seen yoonu bopp moona noppiwula firndeel aw meloom ci def lu baax di leen wàcceele ci asamaan taw buy indi naataange ba ngeen lekk ba suur te seen xool fees ak mbég noonu ci lu jafe yey nañu mbooloo ma ak wax jooju ba tere leen ñu rendi leen sarax waaye bi loolu wéyee amoon na ay yawut yu jóge antiyos ak ikoniyom ñu fàbbi mbooloo ma sànni pool ay doj ba yaakaar ni dee na ñu diri ko ba ca ginnaaw dëkk ba waaye taalibe yi ñëw wër ko mu daldi jóg duggaat ca dëkk ba ca suba sa nag mu ànd ak barnabaas dem derb bi ñu fa àggee nag ñu xamle fa xabaar bu baax bi ba sàkk fa ay taalibe yu bari ginnaaw loolu ñu dellusi listar listaar ikoniyom ak antiyos di dooleel xeli taalibe ya xiir leen ñu sax ci yoon wi ñu ne leen ci kaw natt yu bari lañu war a dugge ci nguuru yàlla ci mbooloom ñi gëm mu nekk nag ñu tànn ci ay njiit ba noppi ñu ñaan yàlla ak di woor dénk leen boroom bi ñu gëm ginnaaw loolu ñu jaar diiwaanu pisidi dikk ci pamfili ñu yégle kàddu gi ci dëkku pers doora dem dëkku atali foofa nag ñu dugg gaal jëm antiyos fa ñu leen dénke woon ci yiwu yàlla ngir liggéey bi ñu àggale bi ñu agsee ñu woo mbooloom ñi gëm nettali leen fi ñu jaar ak yàlla fépp ak ni mu ubbee buntu ngëm ci ñi dul yawut noonu ñu toog ak taalibe ya diir bu yàgg jëf ya juróom amoon na bis ay nit yu jóge diiwaanu yudde ñuy jàngal mbokk yi ne leen ku xaraful ni ko aaday musaa santaane doo mën a mujj pool ak barnabaas nag am ak ñoom diisoo ak werante wu metti noonu mbokk yi jàpp ne pool ak barnabaas ak ñeneen ci ñoom war nañoo dem yerusalem ca ndaw ya ak njiit ya ngir leeral werante wi kon nag mbooloo mi gunge leen ñu jaar ci wàlli finisi ak samari di nettali ni ñi dul yawut woññeeku ci yàlla ba mbokk yépp am ca mbég mu réy te bi ñu egsee yerusalem mbooleem ñi gëm ndaw yi ak njiit yi teeru leen ñu nettali leen fi ñu jaar ak yàlla fépp ci kaw loolu ñenn ñi gëm waaye bokk ci tarixaab farisiyen ya daldi jóg né faw ñi dul yawut xaraf te ñu dénk leen sàmm yoonu musaa noonu ndaw yi ak njiit yi dajaloo ngir seet mbir moomu ginnaaw werante wu bari piyeer jóg ni leen yéen mbokk yi xam ngeen ni ca njaalbeen ga yàlla tànnoon na ma ci yéen ngir ma yégal ñi dul yawut xabaar bu baax bi ba ñu gëm te yàlla mi xam xol yi seede na leen ci li mu leen may xel mu sell mi ni mu nu ko maye nun itam gënalante wunu ak ñoom ci li mu sellal seen xol ci kaw ngëm léegi nag lu tax ngeen di diingat yàlla ci teg taalibe yi yéen bu nu musula attan nun mbaa sunuy maam ñun daal ci yiwu yéesu borom bi lañu yaakaar mucce te ñoom itam ci lañu wekku bi mu ko waxee mbooloo mépp ne xërëm di déglu barnabaas ak pool ñuy nettali kéemaan ak firnde yépp yi yàlla def jaarale ko ci ñoom ci biir ñu dul yawut bi ñoppee noppee saak jël kàddu ga ne mbokk yi déglu leen ma simon nettali na ni yàlla seetse bu jëkk ñi dul yawut ngir sàkku ci ñoom xeet wu ñu tuddee turam te loolu sax dëppoo na ak li yonent yi tëral ñu bind ne borom bi nee na ginnaaw loolu dinaa dellusi te yëkkati këru daawuda gi ne tasar dinaa defar toj-toj ya ba taxawalaat ko noonu li des ci doom aadama wut borom bi maanaam xeet wi dul yëwut ñuy tudd sama tur man dinaa def loolu man borom bi ko wax te ca njaalbeen ba tey ma di ko xamle kon nag lii mooy sama ndigal bu nu gëtën ñi dul yëwut te waññeeku ci yàlla waaye ñu bind leen ñu moytu ñam wu araam wu ñu tuuroo xërëm tey moytu njaaloo ak jur gu medd bay naan deret ja ndaxte ca njaalbéen ga ba tey am na ca dëkk bu nekk ñuy waare ci yoonu musaa bisu noflaay bu nekk sax dañu ciy xutba ca jàngu ya bi mu ko waxee ndaw yi ak njiit yi ak mbooloom ñi gëm mépp fas yéene tànn ci ñoom ay nit yónni leen antiyos ñu ànd ak pool ak barnabaas noonu ñu tànn yudd mi ñuy dippee barsabaas ak silaas di ay njiit ca mbokk ya ñu jox leen bataaxal bu ne yéen sunu mbokk yi dul yawut te dëkk antiyos siri ak silisi ñu ngi leen di nuyu nun seeni bokk di ndaw yi ak njiit yi dégg nañu ne am na ay nit ñu bawoo ci nun ñu di leen lëjal ak seeni wax di jaxase seeni xol te fekk sukkandikoowunu ci lenn ndigal lu jóge ci nun kon nag mànkoo nanu ci tànn ay nit yónnee leen ko ànd ak sunuy soppe barnabaas ak pool ñoom jaay nañu seen bakkan ngir turu yeesu kirist borom bi yónni nañu nag yudd ak silaas ñu di leen xamal xabaar boobu ci seen gémmiñ ndaxte li neex xel mu selli mi te neex nu mooy ñu bañ leen a teg beneen yen lu dul dénkaane yi am njariñ maanaam ngeen moytu ñam wu ñu tuuroo xërëm deretu jur gu medd ak njaaloo bu ngeen moytoo yëf yooyu dingeen def lu baax ci jàmm noonu ñu tàggoo dem antiyos ñu dajale mbooloo mi jébbal leen bataaxal bi ñu jàng ko nag seen xol sedd ci doole ji leen bataaxal bi indil te yudd ak silaas ñi doon yonent ñuy dooleel mbokk yi di dëgëral seen fit ak wax yu bari bi loolu amee ñu toog fa ab diir ba noppi mbokk yi yiwi leen ci jàmm ñu dellu ca ña leen yónniwoon waaye pool ak barnabaas des ci antiyos di jàngale ak di xamle xabaar bu baax bu kàddu borom bi ñoom ak ñeneen ñu bari pool ne barnabaas nan dellu seeti mbokk ya ca dëkk yépp fu nu masa yégle kàddu borom bi ba gis ni ñu def barnabaas nag bëggoon naa yóbbaale yowaana mi ñuy waxit màrk waaye pool dafa lànk ne matul ñu yóbbu ki nu wàccoon ca pamfili ba àndul woon ak nun ca liggéey ba noonu ñu xuloo ba far tàggoo barnabaas yóbbaale màrk ñu dugg gaal jëm sipar pool tànn silaas dem mbokk ya denk leen ci yiwu borom bi mu jaar ci diwaanu siri ak silisi di dëgëral mboolooy ñi gëm jëf ya juróom benn naka noonu mu dikk dëkku derb ak listar fekk fa taalibe bu tudd timote te ndeyam di yawut bu gëm waaye baayam di grek te mbokk yi nekk dëkk listar ak ikoniyom seedeel nañu ko lu baax pool bëgg nag mu ànd ak moom waaye ndegam yawut yépp ya dëkk ca walaaya ya xam ne baayam grek la woon mu jël ko xarafal ko bi loolu amee ñuy jaar ci dëkk ya jottali leen dénkaane yi ndaw yi ak njiit yi nekk Yerusalem joxe te sant leen ñu sàmm ko noonu mboolooy ñi gëm di gëna dëgër ci yoon wi te yokk bés bu nekk bi loolu amee gannaaw xel mu sell mi aaye na leen ñu yégle ji kàddu gi ci diiwaanu asi ñu daldi jaari wàlli firisi ak galasi bi ñu agsee nag ci wetu diiwaanu misi ñuy jéem a dugg diwaanu bitini waaye xelam yéesu mayu leen ko ñu romb nag misi dem dëkku trowaas noonu ci guddi yàlla feeñu pool ci nii nitu masedowan taxaw di ko ñaan ne ko ñëwal masedowan walli sunu bi mu amee peeñu moomu ca saasa ñu fexe jàll ca masedowan xam ni borom bi moonu woo ngir nu xamle fa xabaar bu baax bi noonu ñu dugg gaal ca trowaas jubal dunu samotraas jóge fa ca ëllëg sa ñu jëm teerub neapolis bi nu fa teeree nu jëm filip bi nekk dëkk bi ëpp maanaa ca wàll woowu ci diiwaanu masedowan di it suufu rom ñu toog fa ay fan bi bésu nooflaay ba agsee nag génn nañu ci buntu dëkk ba jublu ci wetu dex ga yaakaar ni barabu ñaanukaay la ñu toog fa nag di wax ak jigéen ña fa dajaloo fekk am na fa jigéen juy déglu tudd Lidi di jaaykatu cuub bu dëkk ca Tiir te mu ragal yàlla noonu borom bi ubbi na xolam ba mu nangu li Pool di wax ci kaw loolu ñu sóob ko ci ndox moom ak waa këram ba noppi mu ñaan nu ne bu ngeen ma jàppee ni ku takku ci borom bi ganisi leen ma ci sama kër te mu duñu ci xiir am bés ba ñuy dem nag ca ñaanukaay ba ñu daje ak jaam bu jigéen bu rabu gisaane solu te ay sangam di jaruñu lu bari ci gisaaneem mu daldi topp ci pool ak nun di xaacu ne nit ñiy jaami yàlla aji kawe ji lañu ñoo leen di yëgal yoonu mucc muy def noonu ay fani fan waaye bi ko pool xajootul mu woññeeku ne rab wa sant naa la ci turu Yeesu Kirist génnal ci moom noonu rab wa ni mëll génn ci moom bi ay sangam gisee nag seen buntu wërsëg tëju ñu daldi jàpp Pool ak Silaas di leen diri jëmaleen ca pénc ma fa kanam njiit ya noonu ñu dëj leen fa mbaxanay menne naan yawut yi la jël nañu sunu dëkk di xamle ay aada yu ñu sañu la nangu mbaa ñu di ko topp nu ñu bokk ci nguuru Rom mbooloo mi it ànd ci dal ci seen kaw àttekat ya nag sumuli seeni yéere santaane ñu dóor leen ay yar noonu ñu dóor leen ay yar yu bari tëj leen sant boroom kaso ba mu wottu leen bu wér ginnaaw jot na ndigal loolu nag mu sànni leen ca néeg ba gën a ruq ca biir kaso ba jëng seeni tànk ba guddi gi xaaj nag pool ak silaas di ñaan ak di sant yàlla te ñeneen ñi nekk ca kaso ba di leen déglu ca saa sa suuf yëngu bu metti ba fondamaab kaso ba daanu bunt yépp daldi ne kulbét ubbeeku te jéngi ñañu tëj ne tëll di jeeku ci kaw loolu boroom kaso ba tiit ci ay nelaw gis bunt yépp ubbeeku mu daldi bocc jaasoom bëgg a xaru yaakaar ne ñañu tëj dañoo daw waaye Pool wax ci kaw ne bu lor sa bopp nun ñépp ñu ngi fii bi ko boroom kaso ba déggee mu daldi laaj làmp ne saraax dugg daanu ci kanamu Pool ak Silaas di lox mu génne leen ci biti ne leen kilifa yi lu ma war a def ba mucc ñu tontu ko gëmal yéesu boroom bi kon dinga mucc yow ak sa njaboot noonu ñu xamal ko kàddu borom bi moom ak waa këram gépp mu jël leen nag ci waxtu woowu ci guddi raxas seeni gaañu gaañu ba noppi ñu sóob ko ci ndox moom ak waa këram gépp bi ñu ko defee mu yóbbu leen ca këram jox leen ñu lekk mu bég lool ci li mu gëm yàlla moom ak waa këram gépp àttekat ya yónnee alkaati ya ñu ne boroom kasa ba yiwil ñaari nit ñoo ñu dem kon boroom kasa ba yëgal loolu pool ne ko àttekat ya jox nañu ma ndigal ngir ma yiwi leen ngeen dem léegi nag génn leen te dem ci jàmm waaye pool ne alkaati ya dóor nañu nu ay yar ci kanamu ñépp ci lu ñu wéerul ci genn ci benn àtte rax ca dolli tëj nañu kaso nun ñi jàmbur ci nguuru Room léegi nag dañu noo bëgg sànni ci mbedd mi ci kumpa mukk nanu ñëw ñoom ci seen bopp gunge nu ci biti bi mu ko waxee alkaati ya yëgal àttekat ya la mu wax bi ñu déggee ne jàmburi Room lañu ñu daldi tiit ñu ñëw nag di leen dëfal ñu gunge leen ci biti di leen ñaan ñu génn dëkk ba noonu ñu génn ca kaso ba dugg ci kër Lidi ñu gis fa mbokk ya dëgëral leen daldi dem seen yoon jëf ya saar bi ñu fa jógee ñu aw yoon wu jaar dëkku amfipolis ak apoloni doora ñëw tesalonik fa yewoot ya am jàngu pool nag dugg ca ñoom na mu ko daan defe ba am fa ñetti bésu noflaay muy welante ak ñoom ci li mi wax mu di leen koo tekki te di leen wax ay firnde yuy wone ne faw almasi bi sonn te dekki mu ni leen yéesu mi ma leen di yëgal mooy almasi bi noonu ñenn ci yawut yi gëm ànd ak pool ak silaas ñoom ak mbooloo mu mag ci gereg yi ragal yàlla ak jigéen ñi am maanaa ñu bari waaye ki ñaan tàbbi ca yawut ya ñu daldi jël ay taxawaalukat ca pénc ma dajale mbooloo ñu yëngal dëkk ba ñu daanu ci kër Yason di wut Pool ak Silaas ngir dëj leen ci kanam waa dëkk ba bi ñu leen gisul nag ñu diri Yason ak ñeneen ca mbokk ya ci kanamu àttekat ya ñuy wax ci kaw naan nit ñi dëpp àddina sépp agsi nañu fii léegi te yesoon na leen dalal ñoom ñépp dañoo bañ ndigali buur sesaar ne am na beneen buur bu ñuy wax yéesu bi ko mbooloo mi ak àttekat yi déggee ñu daldi jaaxle lool noonu nanguwuñoo yiwi yesoon ak ñi ci des lu dul bi ñu leen batalelee dara bi loolu amee mbokk yi jàllale pool ak silaas ca saasa ci guddi ñu jëm bere ba ñu fa àggee nag ñu dugg ca jàngub yawut ya fekk ña fa nekk ñoo gën a am ay teggin waa tesalonik ndaxte nangu nañu kàdduga te sawar ca di niir mbind mi bés bu nekk ba xam ndax loolu dëgg la am déet kon nag yawut yu bari gëm ak ñu bari ci grek yi di jigéen yu am maanaa ak ay góor waaye bi yawuti tesalonik déggee ne pool mu ngi yégle kàddu yàlla ci bere yit ñu daldi fay dikk di jógloo ak a jaxase mbooloo ma noonu mbokk yi yebal pool te saase mu jëm géej waaye silaas ak timote des fa ñu ànd ak pool nag gunge ko ba dëkku aten bi ñu fa àggee ñu woññeeku yóbbaale ndigalu pool ne silaas ak timote ñëw fekk si ko ci lu gën a gaaw bi pool di nekk ca aten mu am naqaru xol wu rëy ci li mu gis dëkk ba fees ak ay nataali bokkaale yàlla muy werante nag ca jàngu ba ak yawut ya ak ña ragal yàlla tey werante it bés bu nekk ca pénc ma ak ña fay dajaloo noonu ay boroom xam-xam ci mbooloo mi ñuy wax épicurien ak ci mbooloo mi ñuy wax estuwiseen di werante ak moom ñenn ci ñoom ne fortukatu xam-xam bii lu mu bëgg a wax te ña ca des bi ñu déggee pool di waare xebaar bu baax bi aju ci yeesu ak ci mbirum ndekkite ñu ne dafa mel ni day waare ay yàlla yu ñu xamul kon nag ñu jël ko yóbbu ko ca géew ba ñuy wax ayropaas ñu ne ko dañoo bëggoon nga leeral nu ci sa xam-xam bu bees bii ngay yégle ndaxte sol nga ci suñuy nopp lu ñu xamul dañoo bëggoon a xam nag léegi loolu lu muy tekki ndaxte waa Aten ñépp ak doxandeem ya fa dëkk wax ak a déglu lu bees rekk lañu daan xinte noonu Pool taxaw ci biir mbooloom Areopaas ne leen yéen waa Aten gis naa ne farlu ngeen ci diine lool ndaxte bi may doxantu di seet seeni màggalukaay gis naa ci benn bu ñu bind lii yàlla mi ñu xamul li ngeen di màggal nag te xamuleen ko loolu laa leen di xamal yàlla mi sàkk àddina ak li mu ëmb lépp moom mi boroom asamaan ak suuf du dëkk ci néegu màggalukaay yu loxooy nit defar du jariñu it ci loxooy nit mel ni dafa soxla dara ndax moom moo jox ñépp bakkan ak ruu ak lépp ci kenn nit la sàkke xeeti àddina yépp ñu dëkk ci ñeenti xibla yi fekk appal na xeet wu nekk jamonoom te rëdd seen diggi réew yàlla def na loolu ngir ñu koy wut ci yaakaaru daj ko ci làmbatu fekk sax soriwul kenn ci nun ndaxte ci moom lañuy dunde di ci jëf te nekk ci ni ko ñenn ci seeni taalifkat dëggale naan nun ñoo di aw xeetam kon nag bu nu nekkee xeetu yàlla warunoo gëm ne yàlla mel na ni nataale wurus xaalis mbaa doj yu nit defar ci xereñ mbaa xel te jamono yu wees ya yàlla toppul ñàkk xam googu waaye léegi koo mën a doon ak foo mën a nekk yàlla santaane na nga tuub say bàkkaar ndaxte sàkk na bés bu muy àttee àddina ci njub dénk ko nit ki mu tànn te firndeel na loolu bu wóor ci li mu ko dekkal ca néew ya bi ñu déggee nag muy wax ci mbirum ndekkiteel ñi dee ñii di ko fontoo ña ca des ne ko dinañu la déglu ci mbir moomu beneen yoon noonu pool génn ci seen biir moona am na ñenn ñu taq ci moom te xamees na ca danis ku bokk ci mbooloom areopaas ak jigéen di tudd damaris ak ñeneen jëf ya saar fukk ak bi loolu wéyee pool bàyyi ko aten dem korent mu tase fa ak yawut bu tudd akilaas te juddoo diwaanu pont muy sog a jóge réewu itali ak jabaram prisil ndaxte buur ba Claude sant na yawut yépp ñu génn rom noonu pool seeti leen te ginnaaw ñoo bokk liggéey maanaam di defar ay tànt mu dal fa ñoom ñuy liggéeyandoo bésu noflaay bu nekk nag muy diisoo ak ñi nekk ca jàngu ba di jéem a gëmloo ay yawut ak ay grek waaye bi silaas ak timote jóge diiwaanu masedowan àgg fa pool jublu ci xamle kàddu gi tey dëggal ci yawut yi naan yéesu mooy almasi bi bi ko yawut ya gàntoon nag di ko xas mu yëlëb ay yéereem ne leen yéena sàkku seen musiba seet naa ci léegi maa ngi dem ci ñi dul yawut ci kaw loolu mu jóge fa dugg ci këru ku tudd tisiyus yustus di ko ragal yàlla te kër ga dend ak jàngu ba krispus nag njiitu jàngu ba gëm na boroom bi ak waa këram gépp te waa korent ñu bari dégg kàddu gi te gëm ko ñu soob leen ci ndox naka noonu boroom bi feeñu pool ca guddi ne ko bul tiit dara waaye del wax te bañ noppi ndaxte maa ngi ànd ak yow te kenn du la jàpp ba fitnaal la ndaxte am naa xeet wu bari ci dëkk bii noonu pool des at ak genn wàll ci seen biir di fa jàngale kàddug yàlla ci nguuru galyoon ci diiwaanu akayi nag yawut ya likkoo ñu dal ci kaw pool yóbbu ko ci attekaay ba ñu ne kii day xiir nit ñi ci màggal yàlla ci lu juyoo ak yoon wi bi pool bëggee wax nag galiyon ne yawut ya yéen yawut yi bu aju woon ci jàdd yoon walla ñaawteef yu réy kon li yoon mooy ma déglu leen waaye bu ajoo ci ay werante ciy wax ak ay tuur ak seen yoon loolu seen wàll la man duma ko àtte noonu mu dàq leen ci àttekaay ba ci kaw loolu nit ñépp jàpp sosteen njiitu jàngu ba ñu di ko dóor ca kanamu àttekaay ba waaye gàll faalewu leen bi loolu wéyee pool desati fa fan yu bari ginnaaw ga mu tàggatoo ak mbokk ya dugg gaal jëm siri ànd ak persil ak akilaas bi mu jógeegul teerub sansare mu watlu boppam ndaxte am na lu mu dige woon ak yàlla noonu ñu teer ci efes pool bàyyi fa ñamu mu àndaloon daldi dugg ca jàngu ba di diisoo ak yawut ya ñu ñaan ko mu des fa lu gën a yàgg waaye nanguwul kon mu tàggatoo ak ñoom naan dinaa dellusi ci yéen bu soobee yàlla noonu mu dugg gaal jóge efees teer si dëkku sesaare mu dem nuyu mbooloom ñi gëm ba noppi dem antiyos bi mu fa desee ay jamono mu jóge fa di jaar dëkkoo dëkk ci diiwaanu galasi ak firisi di dooleel xoli taalibe yépp amoon na nag yawut bu tudd apolos te juddoo aleksandri mu dikk efes nit ku yeewu la woon te am xam-xam bu yaatu ci mbind mi jàngoon na ci yoonu borom bi di ku farlu ci xelam muy xamle ak a jàngale bu wóor ci mbirum yéesu waaye fekk xam-xamam yem ci ni ya daan soobe ci ndox noonu mu daldi wax ak fit wu dëgër ca jàngu ba bi ko pirsil ak akilaas déggee nag ñu woo ko fi ñoom gën koo leeral yoonu yàlla naka mu bëgg a dem akayi mbokk ya xiir ko ca ñu bind taalibe ya ngir ñu teeru ko teeru bu rafet noonu mu dikk fa te jariñ lool ñi gëm jaare ko ci yiwu yàlla ndaxte ma ngay yey yawut ya ca kanam ñépp di firi mbind yi ba wone ne yéesu mooy almasi bi jëf ya saar fukk ak juróom ñeent ba apolos nekkee korent nag pool jaar ca teggi ya gën a kawe ca réew ma door dikk efes noonu mu gis fa ay taalibe mu ne leen ndax jot ngeen ci xel mu sell mi bi ngeen gëmee ñu tontu ko nu sax ne xel mu selli mi am na mu ne leen kon nag bi ñu leen soobee ci ndox lu ciy maanaa ñu tontu ko xanaa li yaxya tëral pool ne leen yax ya daan na sóob nit ñi ci ndox ndax bi ñu tuubee seeni bàkkaar te mu ne bànni israyil ki topp ci moom lañu war a gëm maanaam yéesu bi ñu déggee loolu nag sóob nañu leen ci ndox ci turu yeesu borom bi te bi leen pool tegee loxo xel mu selli mi ñëw ci ñoom ñuy wax yeneeni ràkk di wax ci kàddug yàlla limub nit ñooñu nekk na lu mat fukk ak ñaar noonu pool dugg ca jàngu ba di wax ak fit wu dëgër diirub ñetti weer di diisoo ak ñoom ci mbirum nguuru yàlla di leen jéem a gëmloo waaye bi xoolu ñenn ci ñoom fàtte ñu gëmadi bay suufeel yoon wi ci kanamu mbooloo ma mu jóge ci ñoom xaajale taalibe yi ak ñoom di diisoo bés bu nekk ca jàngukaayu ku ñuy wax tirañus muy wecci noonu diirub ñaari at ba ñu dëkk diiwaanu asi ñépp dégg kàddu boroom bi muy yawut muy grek booba yàllay def ay kéemaan yu ràññeeku yuy jaar ci loxoy pool ñuy yóbbul sax ñuy wopp ay kaala ak ay taraxlaay yuy laaloon yaramam ba jàngoro yi di leen bàyyi rab yay génn ci ñoom noonu ay yawut yuy wëndeelu di faj ni rab jàpp ñu di leen jéem a ñaanal ci turu yeesu borom bi naan ci turu yéesu mi pool di yëgle génn leen ñi doon def loolu juróom ñaari doom lañu woon ci seva mi doon taafantaloo saraxalekat bu mag ba ci yawut yi waaye bi ñu ko defee rab wa tontu leen ne xam naa yéesu xam naa it kuy pool waaye yéene ñan ci kaw loolu nit ka rab jàpp songu leen noot leen ñoom ñépp mu soxore leen lool ba ñu daw kër ga def yaram mu neen te gaañu bu metti loolu siiw na ci ñépp ñi dëkk efes di yawut ak grek tiitaange jàpp leen ñoom ñépp ba ñu màggal turu yeesu borom bi bi loolu amee ñu bari ci ñi gëm ñëw di wasar ci kanam ñépp seeni jati luxus te ñu bari ci ñi daan luxus indi seeni téere lakk leen ci kanam ñépp te bi ñu xaymaa njëg mu tollook juróom fukki junniy posati daraxma noonu la kàddu borom bi lawe te noot lépp bi loolu wéyee pool nas xel jëm yerusalem jaar ci diiwaanu maseduwaan ak akayi mu ne ginnaaw bu ma fa demee faw seeti rom mu yebal nag ci maseduwaan ñaari jaraafam di timote ak erast waaye moom mu des ab diir ci asi fekk booba amoon na yëngu-yëngu bu rëy ci lu aju ci yoon wi ndaxte nit ku tudd demetriyus di tëggu xaalis buy defar nataali xaalis ngir màggal artemis daan ci jariñu lu bari moom ak ay nawleem noonu mu dajale leen ak seeni liggéeykat ne leen gaañi xam ngeen ni sunu njariñ mu ngi aju ci liggéey bii gis ngeen nag te dégg ne pool male gëmloon na bay fab bi mbooloo mu bari waxuma ci efes rekk waaye ci biir asi gépp naan yàlla yu ay loxo defar duñu ay yàlla léegi kat loraangee ngi nuy yoot te du yem ci xañ nu suñu liggéey rekk waaye it dina daaneel màggalukaayu artemis sunu yàlla ju màgg ji tey neenal ndamam moom mi asi gépp te àddina sépp di màggal bi ñu déggee loolu mer mu rëy tàbbi ca ñoom ñu yuuxu ne artemis mu efes màgg na noonu dëkk bépp jaxasoo ñu bokk benn xalaat daldi ne milip ca powukaay ba dirikayus ak aristark waa maseduwaan ñi ànd ak pool pool nag bëgg dugg ca mbooloo ma waaye taalibe ya nanguwuñu ko ñenn ca jawriñu nguur gi it ñuy ay xaritam yónne ci moom di ko dénk mu bañ a jaay bakkanam ci dugg ca powukaay ba noonu ndaje ma rëb ba ñii di yuuxu lii ñele di yuuxu laa te ña ca gën a bari xamuñu lu waral ndaje ma ci kaw loolu yawut ya jeñ aleksandar ci kanam te mbooloo ma di ko xaacu ak ay ndigal mu daldi tàllal loxoom ngir lay ca mbooloo ma waaye bi ñu xamee ne yawut la ñépp bokk benn baat yuuxu diirub lu mat ñaari waxtu naan artemis mu efes màgg na gannaaw loolu boroom dëkk ba dalal mbooloo ma ne leen yéen waa efes ana ko xamul ne dëkku efes moo di wattukaayu màggalukaayu artemis ak nataalam bi wàcce asamaan gannaaw nag kenn mënta weddi loolu war ngeen a dalal seen xel te bañ a sañaxu ci dara ndaxte nit ñi ngeen fi indi sàccuñu ca màggalukaay ya te sosaluñu sunu yàlla su fekkee ne demetrius ak ay nawleem jànkonte nañu ak kenn am na ay bési layoo ak ñu yilif réew mi nañu fa woo ku ñu am leen teel waaye su ngeen dee laaj leneen mbooloom dëgg dina ko àtte ndaxte fii mu ne mën na noo jiiñ jógug mbooloo mi ndax li fi xew tey te bu loolu amee du nu am aw lay ci mbirum mbooloo mu rëb mi ndaxte amul dara lu ko waral bi waxee loolu nag mu tas mbooloo ma jëf ya bi yëngu-yëngu ba dale pool woo taalibe ya fa moom dooleel leen bi mu ko defee mu tàggoo ak ñoom jóge fa dellu diiwaanu masedowan noonu mu jaar ca barab yooyu di dooleel nit ñi ak wax yu bari ba noppi mu dem réewu Grèce toog fa ñetti weer waaye bi mu nekkee ci kaw tànki dugg gaal jëm diwaanu Siri te yawut yi lalal ko pexe mu fas yéene dellu jaare Masedowan booba nag ñi ñoo ànd ak moom Sopater doomu Pirus mi dëkk Bere Aristark ak Segond ñi dëkk Tesalonik Gayus mi dëkk Derb ak Timote te it tisik ak torofim ñi dëkk asi ñooñu nag jiitu di ñu nekk dëkku trowaas waaye naka nun gannaaw màggalu yawut ga ñuy wax mburu ya amul lawiir ñu dugg gaal ci filip def ci juróomi fan fekk si leen trowaas nu am fa juróom ñaari fan ca bés bu jëkk ca ayu ga booloo nanu ngir damu mburu mi bëggoon a dem ca ëllëg sa di diisoo ak ñoom te waxtaanam law ba ci xaaju guddi ca néeg bu kawe ba ñu booloo nag amoon na fa làmp yu bari noonu waxambaane wu tudd ëtikus te toog ca palanteer ba gëmmentu bay jayaxu bi pool di gën a yaatal waxtaanam nag nelaw daldi ko jàpp mu xawee ko ca ñetteelu taax ma daanu ñu yëkkati ko fekk mu dee waaye pool wàcc daldi sëgg ci kawam roof ko loxoom ne leen bàyyi leen jooy yi mu ngi dund noonu mu yéegaat damu mburu ma lekk ba noppi delluwaat ci waxtaanam di ko yaatal ba ca njël doora tàggoo naka waxambaane wa ñu indi ko muy dund ba seen xol sedd guy nu nag ñu jiitu dugg gaal jëm asos fanu pool santoon ñu jële ko fa fekk moom fas na yéene dox ba agsi fa noonu mu fekk sunu ci asos ñu jël ko ca gaal ga dem mitileen ginnaaw loolu gaal ga jóge fa nu agsi ca ëllëg sa janoog du nukiyos bés ba ca tegu nag ñu jàll ba samos te ñetteelu fan ba nu àgg mile ndaxte pool fasoon na yéene teggi efes ngir bañ a yàgg ci diiwaanu asi mu ngi doon gaawantu ngir màggal gi ñuy wax pantekot fekk ko Yerusalem bi pool àggee mile nag mu yónnee ca efes ngir woo njiiti mbooloom ñi gëm bi ñu ñëwee mu ne leen yéen xam ngeen bu baax ni ma doon doxale diirub sama ngan gépp ci seen biir li dale ci bés bi ma jëkkee teg tànk ci asi ba tey jaamu naa borom bi ci woyof gu mat ak ay rongoñ dëkku ay nattu yu may pexe yawut yi indil xam ngeen ne musuma leen a nëbb dara lu leen di jariñ di leen jàngal ci kanamu ñépp ak ca kër ya dénk naa yawut yi ak gereg gi ne leen ñu tuub seeni bàkkaar ba waññeeku ci yàlla te gëm sunu borom yéesu léegi maa ngi nii di dem yerusalem ci li ma xelu yàlla mi xiirtal te xawma lu ma fay dal xam naa rekk ne ci dëkkoo dëkk xel mu sell mi xamal na ma ni ay buum ak i metit ñu ngi may nekk waaye sama bakkan soxaluma su fekkee bay naa sama sas ba matal liggéey bi ma borom bi dénk maanaam ma seddal ci ñépp xabaar bu baax bi ëmb yiwu yàlla fii mu ne nag xam naa ne dootu leen gis sama kanam yéen ñépp ñi ma jaaroon ci seen biir di yégle nguuru yàlla moo tax may dëggal tey jii ne wàccoo naa ak yéen ñépp bés pénc ndaxte ñeebluwuma leen ci di leen xamal lépp li yàlla digle wattu leen nag seen bopp te wattu coggal jépp ji leen xel mu sell mi def sàmm ngeen sàmm mbooloo mi yàlla jotal boppam ak deretu doomam xam naa ni bu ma leen wonee gannaaw bukki yu soxor dinañu tàbbi ci coggal ji te duñu ci ñeeblu kenn ay nit dinañu jóg ci seen biir sax di wax luy sànke ngir sàkku ay taalibe foog leen nag di fàttaliku ne diirub ñetti at guddi ak bëccëg musuma noppi di leen artu kenn ku nekk ci yéen ak ay rongoñ léegi nag maa ngi leen di dénk borom bi moom ak kàddu gi yoom gi leen mën a dëgëral te may leen cër ci biir gaay yàlla yu selli yépp namuma xaalisu kenn mbaa wurusam mbaa koddaayam xam ngeen ni faj naa samay soxla ak soxlaay ni ànd ak man ci sama loxo yii ci lépp won naa leen royukaay ci li ñu war a dimbali ñi néew doole te fàttaliku li yéesu borom bi wax moom ci boppam ne joxe moo gën a barkeel nangu bi mu waxee loolu mu sukk ak ñoom ñépp ñaan ci yàlla te ñépp jooy bu metti di laxasu ci baatu pool foon ko bu baax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 ñoom ak kuréelu àttekat ya ginnaaw loolu mu indi lu dëj ko ci seen kanam jëf ya ñett noonu pool xool jàkk géew ba ne leen bokk yi ci xel mu dal laa doxale ci kanam yàlla ba ci bésu tey bi ci kaw loolu saraxalekat bu mag ba di ku ñuy wax ananiyaas sant ña taxaw ca wetam ñu feel gémmiñam pool ne ko yàlla dina la dóor yow mi naafeq bay saamandaay miir buy jooy bu ñu weexal yaa ngi toog di ma àtte ci li yoon wi digle ba noppi santaane ñu dóor ma ci lu yoon wi tere waaye ña taxaw ca wetam ne ko ndax dangay xas saraxalekat bu mag bi yàlla fal pool tontu leen bokk yi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 bokk ca farisiyen ya ne bëreet daldi xulo bu metti ne gisuñu dara lu bon ci nit ki su fekkente ne rab wax mbaa malaaka noonu xulo ba daldi gën a tàng ba kilifa ga ragal ne nit ñi dinañu daggaate pool kon mu sant xarekat ya ñu wàcc nangu pool ci ñoom yóbbu ko ca taataaja ca guddi ga nag borom bi taxaw ci wetu pool ne ko takkal sa fit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 bi festus teesee ci diwaanam mu teg cee ñetti fan dem yerusalem noonu saraxalekat yu mag ya ak njiitu yawut ya kalaame pool ci moom ñuy sàkku ndimbal ci moom di ko ñaan bu wér mu yónnee pool yerusalem fekk lal nañu fiiru rey ko ca yoon wa waaye festus tontu leen ne nu ngi wottu pool ca sesaare te dinaa fa dem fii ak ay fan yu néew mu ne leen ñi am ci yéen na ngeen ànd ak man layoo ji ak nit ka bu dee tooñ na noonu fesis am fa ñoom juróom ñett ba fukki fan ba noppi dem sesaare ci ëllëg sa mu toog ci attekaay ba joxe ndigal ñu indi pool bi mu ñëwee nag yawut yi jóge yerusalem wër ko di ko jiiñ tooñ yu bari te rëy te mënuñu leen a firndeel noonu pool làyyi ne tooñu ma yawut ya tooñuma kër yàlla ga tooñuma buur ba sesaar ci kaw loolu festus mi bëgg lu neex yawut ya tontu pool ne ndax bëgguloo dem yerusalem nga layoo fa ci mbir yi ci sama kanam waaye pool ne ko maa ngi nii taxaw ci kanam attukaayu buur sesaar te fii lañu ma war a àttee te yow ci sa bopp xam nga bu baax ne tooñuma yawut yi su ma tooñoon mbaa ma def lu bon lu jar dee kon duma tinu ngir bañ a dee waaye bu li ñu may jiiñ taxawul kenn sañu ma leen a jébbal dénk naa sama mbir Sesaar bi mu waxee loolu Festus gisee ak ñi ko wër mu tontu ko dénk nga sa mbir Sesaar kon ci moom ngay dem ba ñu ca tegee ay fan buur Agrippa ak Bérénis ñëw Sesaare ngir nuyu si Festus bi seen gan di ruus nag Festus diis buur ba mbirum Pool ne ko Feliks batale nañu ak kenn ku ñu tëj te bi ma nekkee Yerusalem saraxalekat yu mag yi ak njiitu yewut ya nañu ko ci man ñaan ma ma daan ko waaye ma tontu leen ne jébbal nit fekk jàkkaarloowul ak ñi koy jiiñ ba mën a layil boppam ci li ñu koy jiiñ loolu dëppoowul ak aaday nguuru Rom bi ñu àndee ak man ba fii nag randaluma mbir mi waaye ca ëllëg sa sax toog naa ci atekaay ba joxe ndigal ñu indi nit kooku ñi koy kalaame nag bi ñu taxawee jiiñu ñu ko benn ñaawteef ci yi ma yaakaaroon waaye ñuy werante rek ak moom ci seen yoon ak ci mbirum ku tudd yeesu mi dee te pool sax ci ne mi ngi dund ginnaaw lijjanti mbir moomu jafe woon na ma lool nag ma laaj ko ndax bëgg nga dem yerusalem layo ji fa ci mbir yooyu waaye pool ñaan ñu fomm mbiram ba kera buur bu tedd ba di ko àtte noonu santaane naa ñu aj ko ba keroog ma ko yónnee sesaar booba nag agripa ne festus man sax bëgg naa dégg nit kooku festus tontu ko bu ëllëgee dinga ko dégg ca ëllëg sa nag agripa ak berenis ñëw bu xumb ñu dugg ca néegu àtte ba ànd ak kilifaay xare ba ak ñi am ca dëkk ba noonu festus joxe ndigal ñu indi pool bi mu ñëwee festus ne buur agripa ak yéen ñépp ñi fi teew tey nit kaa ngi nii mbiram moo tax mbooloom yawut yépp mu ci yerusalem muy fii wër ma di yuuxu ne nit ki waratul a dund waaye gis naa ne deful dara lu jar moo na gannaaw moom ci boppam dénk na boppam buur bu tedd ba fas naa yéene yónnee ko ko fekk awma dara lu wóor ci mbiram lu ma mën a bind sang bi moo tax ma indi ko ci seen kanam rawatina ci sa kanam buur agripa ngir sunu jataay may ma lu ma bind ndaxte yaakaar naa ne yónnee ku nu tëj te bañ boole lu ko waral àndul ak xel jëf ya sar ñaar fukk juróom benn bi mu ko waxee agripa ne pool jëlal kàddu gi noonu pool tàllal loxoom daldi lay ne buur agripa malay lay ci sa kanam tey ci lépp li ma yawut yi jiiñ xol bu sedd la ci man ndaxte xam nga bu baax aada yawut ak seeni werante yoon kon maa ngi lay ñaan nga déglu ma ak muñ ci lu jëm ci yawut yi xam nañu sama dund li dale ci samak ndaw mu ci sama biir xeet muy ci Yerusalem xam nañu ma bu yàgg te mën nañoo seede su leen neexee ne daan naa dund ni pharisien te mooy tarixa bi gëna diis ci sunu diine li ma indi ci kuréelu àttekat yi nag mooy yaakaar ne yàlla dina amal li mu digoon sunuy maam dige booba la fukki giir ak ñaar yu bànni israyil di sàkku ngir jot ko ci jaamu yàlla ak cawarte guddi ak bëcëg yow buur yaakaar joojoo tax ñu may kalaame ñoom yawut yi lu tax seen xel dàq ne yàlla dina dekkal ñi de man sax ci sama bopp dafa woon naa ne war naa def lu bari ngir suufeel turu nasaret daan ko def ci yerusalem ba noppi ma jot sañ-sañ ci saraxalekat yu mag ya ba tëj gaay yàlla yu bari rax ca dolli ku ñu masaana bëgg rey ànd naa ci daan naa wër jàngoo jàngu di leen teg toskare te di leen jéem a weddi loo te sama mer daana tar ba ma di leen xañ ba ca dëkk yu sori ngir fitnaal leen noonu am bés may dem dëkku damaas yor sañsañ ak ndigalu saraxalekat yu mag ya ca njolloor buur bi gis naa ca yoon wa leer gu jóge asamaan ne ray ba raw leeru jant melex ba ëmb ma man ak ñi ma àndal ñu ne nërëm ci suuf ma dégg baat bu ma wax ci làkku yawut ne sool sool lu tax nga di ma fitnaal ngay bëre ak man ni fas wuy woŋetu ku koy jam dëggal metti na ci yow noonu ma tontu ko yaa di kan borom bi borom bi ne ma maa di yéesu mi ngay fitnaal waaye jógal taxaw lii moo tax ma feeñu la teg naa la yen nga di ma seede ci lépp li nga gis ci man ak li ma lay feeñu ji dinaa la musal ci bànni israyil ak ci ñi dul ci ñoom laa lay yebal ngir ubbi seeni bët nga jële leen ci lëndëm tàbbal leen ci leer gi nga nangoo leen ci sañ-sañu seytaane wañu leen ci yàlla ma baal seeni bàkkaar te may leen cër ci biir sama gaa yi sel ci kaw ngëm kon nag buur Agripa waruma li ma yàlla yen ci peeñu waaye li tàmbalee ci Damas teg ci dëkku Yerusalem ak réewu yawut mépp ba agsi ci ñi dul yawut yëgal naa leen ñu tuub seeni bakaar te wone ko ci yàlla bay jëf lu dëppook rëccu loolu nag moo waral yawut yi jàpp ma ca kër yàlla ga di ma fexe rey waaye ginnaaw yàllaa ngi may taxawu ba tey maa ngi taxaw fii di ko seedeel ci mag ak ndaw yokkuma dara ci li yi ak musaas xamle woon lu jiitu maanaam almasi bi dina dékku ay coono te mooy jëkk a dekki bay jolli leer ci bànni israyel ak ñi dul yawut bi muy laaj yéen nii festus di ko gëdd ak baat bu kawe ne ko danga dof pool xanaa sa jàng mu réy mi dala xañ sago waaye pool tontu ko festus mu tedd mi dofuma waaye lu dëggu laay wax te ànd ak sago yëf yi leer na buur bi moo tax maa ngi koy wax ak kóolute wóor na ni dara ci lii may wax umpu ko ndaxte lii amewul ci ruq ya buur agripa ndax gëmuloo yonent yi xam naa bu wér ne gëm nga noonu Agrippa ne Pool xanaa yow ci diir bu gàtt bii rekk nga ma bëgg a ci gaayi Kirist Pool tontu ko muy tey muy ëllëg waxuma yow rekk waaye it ñi may déglu tey ñépp na yàlla def ba ngeen fekk si ma ci li ma nekk lu mooy jëng yii ci kaw loolu buur bi daldi jóg boroom réew ma topp ci Bérénice tegu ca ak mbooloo ma mépp bi ñu génnee nag ñuy waxante ne nit kii deful dara lu jar dee mbaa kaso te Agripa ne Festus mën nan ko yiwi bu dénkuloon mbiram Sesaar jëf ya sar ñaar fukk juróom ñaar bi loolu wéyee nu fas yéene noo dugal gaal jëme réewu itali noonu ñu jël pool ak ñeneen ñi ñu tëjoon dénk leen jiitu xare bu tudd mi bokk ci mbooloom xare mu buur ñu dugg ca gaalu dëkku Adramit guy taxaw ci teeru Asi daldi tàbbi ci biir géej te Aristark mi dëkk Tesalonik ci diwaanu Maseduwaan ànd ak nun ca ëllëg sa nu teer Sidon Yuliyus laabiir ci Pool may ko mu dem ci ay xaritam ngir ñu ganale ko bi nu fa jógee nu dem ci biir géej leeru dunu Sipar ci feggu ngelaw li ndaxte ngelaw li dañoo soflu ñu jàll géej gi janoog diwaanu silisi ak pamfili teer mira ca wàlli lisi foofa nag njiit la gis gaal gu jóge aleksandri jëm itali mu dugal nu ca noonu nuy dem ndànk diiru fan yu bari ba janoog kaniid ci kaw coono bu réy te ndegam ngelaw li mayu nu nu jëm kanam nu leeru dunu kret ci feggu ngelaw li janoog salmon nu romb fa ak coono yu bari agsi ci berab bu ñuy wax teeru yu neex te dend ak dëkku lase fekk booba yàggoon nañu ca yoon wa te dem ci géej daldi aytal ndaxte jamonoy kooru yawut ya wees na moo tax pool digal leen ne gaañ gis naa ni tukki bi ëmb na musiba ak kasara ju bari waxuma gaal gi ak limu yépp waaye sunuy bakkan sax xej na ci waaye njiit la sobanteel waxi pool dëggal dawalkat ba ak boroom gaal ga te gannaaw teeru ba neexu la euh, lolliko ñi ci ëpp mànkoo ci jóge fa dem ci biir géej ngir wuta agsi finiks bii teeru dunu kret te janook sowu suuf ak sowu kaw nu lollikoo fa noonu bi ngelaw lu woyof liy jóge sudd wole ñu defe ne mën na noo sottal seeni pexe ñu wëgg diigal daldi tefu ci dunu kret waaye nes tuuti ngelaw lu wole panku ñu di ko wax erakiloon jóge ca dun ba ne milip ci suñu kaw mu ëpp doole gaal ga daldi ko wat ba nu bayliku daldi yal ñu daldi daw leeru dun bu tuuti bu ñuy wax koda ci fegu ngelaw rawale looca ga ca kaw gaal ga ak coono bu bari bi ñu ko yëgee ñu fab ay buum ngir laxas ca taatu gaal ga ngir ragal daanu ci suuf su nooy suñuy wax sirt ba noppi ñu daldi sànni diigal ngir wàññi doxub gaal ga ñuy yàlle noonu waaye bi nu ngelaw li sonalee bu metti ca ëllëg sa ñu sànni la gaal ga yeboon ca géej ga te ca ñetteelu fan ba ñu sànni ak seeni loxo jumtukaay yi ñu yeboon ngir fàggu noonu jant bi ne meng te biddiw ne mes ay fan yu bari fekk ba tey ngelaw li di wol ak doole ba sunu yaakaaru mucc gépp tas bi loolu di xew fekk gëj nañoo lekk Pool daldi taxaw ci seen biir ne leen gaañ ñi li gënan mooy ngeen déglu ma te bañ a jóge Kret ba indil seen bopp musiba ak kasara jurey jii léegi nag maa ngi leen di dénk ngeen takk seen fit ndax gaal gi rekk mooy yàqu waaye kenn ci yéen du dee ndaxte ci guddi menn malaaka dikkal na ma jóge ci yàlla sama boroom bi may jaamu mu ne ma pool bul tiit faw nga taxaw ci kanamu sesaar te yaa tax yàllay aar bakkani ñi nga àndal ñépp moo tax gaañi takk leen seen fiit ndax wóolu naa yàlla ne lim ma wax dina am waaye war noo luf cib dun ca fukkeelu guddi ga ak ñeent ñu nga doon jayang-jayangi ca géeju adriyatik noonu ca xaaju guddi dawalkatu gaal ga defe ne dañoo jege ci suuf ñu sànni nattukaay ba ci biir géej mu jàpp ñeent fukki meetar dem ca kanam tuuti sànniwaat ko jàpp fanweeri meetar ñu ragal ni dinañu fenqu ci ay xeer kon ñu daldi sànni ñeenti diigal ci geenu gaal ga di ñaan bët set waaye ci kaw loolu dawalkat gaal ga taafantaloo sànni ji ay diigal ca boppu gaal ga fekk dañuy fexe jël looco ga baraw waaye pool ne njiit la ak xarekat ya bu ñii desul ci gaal gi du ngeen raw noonu xarekat ya dagg buum yay téye looca ga bàyyi ko mu wéy bi bët sa tëgul pool sant leen ñu lekk mu ne leen tey mooy seen fukki fan ak ñeent yu ngeen ne jonn lekku leen mosu leen dara maa ngi leen di sant nag ngeen lekk ndax noonu rekk ngeen mën a rawe ndax genn kawar du rot yéen bi mu waxee loolu mu fab mburu sant yàlla ci kanam ñépp damm ko daldi ko lekk bi ñu gisee loolu ñépp dëgëraat ñu daldi lekk ñoom itam mbooleem ñi nekkoon ca gaal ga mat na ñaar téeméeri nit ak juróom ñaar fukk ak juróom benn noonu ñu lekk ba suur daldi sànni pepp ma ca géej ga ngir woyofal gaal ga bi bët setee nag xàmmiwuñu réew ma waaye séen nañu ruqu tefes noonu ñu fas yéene ca teeral gaal ga bu ñu ko manee ñu dagg diigal ya bàyyi leen ci biir géej yuy waale baar ba ba noppi firi wiiru kanam ga jublu ca tefes ga waaye ñu dal ca tund suuf ca bereb bu ñaari koron daje gaal ga daldi fa luf bopp gaal ga nuur bu baax ne fa tekk te dooley duus ya daldi toj geen ba bi loolu amee xarekat ya bëgg a rey ñi ñu tëj ngir ragal ñenn ñi fey ba raw waaye njiit la bëgg a musal mu tere leen pexe ma mu ñi mën a féey ñu jëkk a sóobu ca ndox ma ba jot tefes ga musant ñi ci des ñu def noonu langaamu ci ay dénk mbaa ci tojiiti gaal ga noonu ñépp jot ca tefes ga ci jàmm ak salaam jëf ya sar bi ñu rëccee ñu yég ne dun baa ngi tudd malt te waa réew ma won nu laabiir gu ràññeeku ndaxte taalal nañu nu safara ganale nu ndax taw bi sóob ak sedd bi pool nag di format di ko def ca taal ba jaan na ca mële ndax tàngoor wa taq ci loxoom bi waa réew ma gisee rab wa weq ci loxoom nag ñuy waxante naan ci lu wóor nit ki reykat la te bi mu rëccee ca géej ga sax ndogalu yàlla mayu ko mu dund waaye pool yëlëb rab wa ca safara sa te wàññiwu ko dara nit ñi di xaar mu newwi mbaa mu ne dalde waaye bi ñu negee lu yàgg te gis ne dara jotu ko ñu soppi xel ne kii yàlla la amoon na nag ca wet yi ay suuf yu doon moomeelu ku tudd Publius di kilifaak dun ba mu teeru nu ganale nu ngan gu réy diirub ñetti fan fekk bàyyi Publius dafa tëdd ndax ay tàngoor yi yaram yu koy dikkal ak biiru taññ Pool nag dem seeti ko ñaan ci yàlla teg ko ay loxoom mu daldi wér ci kaw loolu jarage ca des ca dun ba daldi dikk amaat wér gi yaram ñu tëral nu ay fan yu bari te bi ñuy dem ñu jox nu li nuy soxla lépp ba ñu fa amee ñetti weer ñu dugg ca gaal gu lollikoo ca dun ba daldi tàbbi ca géej ga gaalu dëkku Alexandrie la woon te yor xàmmeekaay guy nataalu kastoor ak poluks noonu nu teer dëkku sirakus toog fa ñetti fan ñu jóge fa leeru tefes ga ba agsi rasiyo ca ëllëg sa ngelawu sudu daldi jóg te ca ñaareelu fan ba nu teer pusol gis nañu fa ay mbokk ñu ñaan nu ñu toog fa ayu bés noonu nu dem rom sunuy xabaar lew na ba àgg ca mbokk ya fa dëkk noonu nu gàttandunu ba ca pencu apiyos ak barab bi ñuy wax ñetti añukaay ya bi leen pool gisee mu sant yàlla daldi takk fitam bi ñu dikkee Room nag ñu may pool mu dëkk fa ko moom ak xarekat ba koy wattu bi ñetti fan wéyee mu woolu njiitu yawut yi dëkk ba bi ñu dajaloo nag mu wax leen lii mbokk yi jàpp nañu ma ci Yerusalem jébbal ma waa Room fekk defuma dara luy suufeel sunu xeet mbaa luy juuyoo ak sunuy aaday maam waaroom nag seet sama mbir te bëgg ma bàyyi ndaxte toppuñu ma dara lu jarde waaye bi ko yewut yi bañee fas yéene naa dénk sama mbir sesaar fekk ba tey awma dara lu may taqal sama xeet moo tax ma ñaane gise ak yéen nu diisoo ndaxte yaakaaru bànni Israyel moo tax ñu jëng ma bi ñu ko déggee ñu tontu ko jotuñu benn bataaxul bu jóge yude ci sa mbir te kenn ci mbokk yi fi dikk jotaliwul mbaam mu seede ci yow lu bon waaye bëgg nañoo dégg li nga gëm ndaxte xam nañu ne tariixa booba kenn jubluwu ko fenn noonu ñu dik ko bés te ñu bari ñëw fekk su ko ca néegam mu di leen jàngal suba ba ngoon di leen dëggal lu jëm ci nguuru yàlla ak ci yeesu tukkee ci yoonu musaa ak ci yonent yi di leen jéem a gëmloo ñenn ñi nag gëm li mu wax ña ca des weddi ko ginnaaw mënuñoo déggoo ñu bëgg a tas waaye bi ñu laataa dem pool teg ca wax ji xel mu selli mi wax na dëgg ak seeni maam jaarale ko ci yonent yàlla esaayi nee na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 yëgal nañu ko ñi dul yawut te ñoom dinañu ko déglu noonu diirub ñaari at pool dëkk ca kër ga muy fey di fa àggale ñépp ñi koy seetsi mu yëgle nguuru yàlla di jàngale ci mbirum borom bi yéesu kirist ak fit wu dëgër te kenn terewu ko ko